asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki groupe daaray mag ñi leen nuyu baax di ziyaare waaw di jégluwaat rek ñi maanaam suñu leçon bi ñu waroon a indi eh, ñoo nekk ci ay maanaam xaw a jàpp daal xaw a jàpp lool nekk ci ay itte waaye dinañ ci ñëw incha allah fii gannaaw suba mu benn laaj rek boo xam ni lañ ma ko téléphoné léegi benn waaye bu nekk États-Unis ñu may ko jabar fii ci Sénégal Eh, xëy na daaw lañ ko ko may daaw lañ ko ko may waa ji ñëwagul Sénégal gisanteegul ak jabar ji léegi nag mu dégg léegi nag ñu ni ndaw si am na doom ndaw si moom am na doom te gisanteegul ak jëkkër bi ñu ko may xëy na déggante rek la waaye buñ ko may ba léegi jëkkër bi ñëwul Sénégal ndaw si demul États-Unis te am na doom kooku li xel di jàpp mooy kon keneen moo ko ëmb ñuy laaj nag. lan mooy àttee doom ji ak jëkkëru ndaw si waaw liñ leen tontu nag mooy jigéen euh, maanaam nit góor lu jabaram ëmb rek doom maanaam bu fekkente ni ponk sëy matoon muy almahru wa siixatu wa zawjaani suma alwaliyu jumlatul arkaan ñeent yii bu matee doon bu matee sa digganteeg jigéen lu mu jur rek sa dooma bu fekkee ne ni can la mat na maanaam joxe nañ ko wala joxewuñ ko waaye tudd nañ ko ba diggee ko bor bu digg boo xam ne xam nañ ko eh, ñoom ñaari way dencante yi ñi nawlante ci dencante xam ne amul kenn maanaam kon ndaw si nekkul nekku woon ci buum te it nekkul juróomeel ara eh, maanaam nekkul koo xam ne si dafa araam waa ji mu takk ko yooyu yëpp dajalu nga xam ne ñoom ñaar seen diggante mën nañoo sëy ba pare mu am kilifa am baata tontu sàtt yëpp bu dajee donte gisante wul ak ndaw si ndaw si lu mu jur bu amee fukki doom rek doom ju mu jur rek jëkkër yi bàyyi bi moom lay donante kon liñ leen tontu liñ tontu mooy jëkkër ji ca États-Unis jabaram ji ci Sénégal te gisanteegul ak moom waaye may nañ ko ci may gu wér ci pas-pas bu wér ndaw si am doom te gisante gul ak waaj doom ji bu amee doom doom ji doomu waaji ca États-Unis la bu amatee doom te waaji ñëwagul waccu ko doomu waaji ca États-Unis la ba bay ba bay fanweeri doom lu mu bare bare bare doomu waaji ca États-Unis la kon jigéen boo ko takkee takk gu wér lu mu jur rek sa doom kon kaca États-Unis te ñëwul gisanteegul ak moom xale bi kooku lay doonanteel bu waa bu kaca États-Unis dee xale bi dana ko doon bu xale bi juddoo ba am xaalis bu dee waaje ci États-Unis dana ko doon maanaam dañuy doonante al waladu lil firash wa lil aahiri al hajar loolu lañ tontu woon waa ji moo tax ñu nañ ko dugal ci fii ñaan yàlla may ñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh salaamaaleykum wa sëñ Rawane ñoo lay nuyu de siyaar baax a baax a baax macha allah Cheikh Lamine Sall euh, yàlla na ko yàlla wattu sa dëgëral ko sama sëriñ la de euh, gis naa masala bi ni mu ko àttee waaye nag dañ ko fi laaj ay dalil ndax moom ab yaat yooyu muy tudd kooku yi nga xam ne mooy sax sëy wér la wax say wér nag taxul ñu doom ji sa doom la ndax gis nañ fi leen ak yi demee noonu sa sëy ba wéroon na léegi xukumu bi xukumu yéegal doom la ana fan la sariya wax ni masala bu mel nii su amee ñoom ñaar musunoo gisante jabar ji xam na ni musunoo gisante jëkkër ji xam na ni musunoo gisante ba pare doom juddu islam ni yaa ko jur dalil ba de moom wax dëgg yàlla dinaa ko sàq dinaa ko laaj salaamaaleykum wa rahmatullah Oustaz Pape Fall maa ngi lay ziyaara di nuyu bu baax a baax a baax waaw man de suñu sëriñ la dañu ñëpp macha allah ayadullah wa nasrahu waaye man de masala bi moom jaaxal na moom moo tax yaakaar naa ne ci majaalisal almi rek laa ko dugal ci groupe bi parce que bëgguma ko dugal ci groupe bi bari ma ci am ay réponse muy jaxasoo waaye majaalisal almi fii moom xam naa ne lépp lu fi duggee dina la moo tax ma dugal ko fii pour yéen borom xam-xam yi ngeen dimbali ma ci euh, xëy na yow mi sax waroon indiwaat beneen laaj yow kay maa waroon tontu direct da ngaa waroon wax yow la nga jàng ci ci ci ci ci waroom xam-xam lañ ko wax mu ñun moom du ñu ay fàttee moo tax waaw boo la ñu ci mënoon dimbali daal dina baax moom wax dëgg yàlla parce que masala bi moom nit laka lay mën a takkee soxna nekk Europe ne yónnee goro ne takkaleel ma sama doomu bàjjen boobu ñu takkal ko doomu bàjjenam waaye nekk di lijjanti kayit kayit ba génnagul ñu ne ko fii ak euh, il faut nga toogaat fi six mois wala sept mois wala un an mu toogaat foofu noonu un an di waxanteeg jabar ji chaque jour euh, mu dem ba ñaari weer des rek mu dem bay bëgg a ñëw ñu woo ko nekk ko soxna sa jabar wasin na ba pare ñu ne ko doom jooju yaay borom ah xam naa ne daal doy na waar xam naa ne ba bañ balaa ñu doon wax al wala dul firage mooy xanaa jigéen joo xam ne xëy na xaarafu nga rek ba pare mooy jigéen joo xam ne dugg nga ci moom bu pare la xat daxal ta aleyha ah man de dama yaakaar rek lii may wax nag moom du sama jàngu bopp moom sama du sama ñu ab njàng sama yaakaar la rek waaw moo tax te xam naa ne comme que diine moom du ab yaakaar ak xel ak yooyu moo tax may laaj pour leeral daal gën ci mën a ñëw incha allah ñu dimbali ko. salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh Amhan la ziar nañ la baax macha allah <laughs> macha bi ka daa yéeme lool. Cheikh xale la sax mi ngi naan bu fekkoon ndaw si dafa dafa sëy si avant mi am juróom rek. ndaw si am doom dañuy dàq ëmb ba xam ni jëkkër jii jur ko Cheikh Khalil waxaat ni bu fekkoon ndaw si dafa wax ni diw moo moo jur sama doom te ma mooy jëkkëram fekk ndaw saa nga sa penku jëkkër jaa nga sa soow ñoom ñaan mu suma gisante jëkkër ji mën naa dàq ëmb ba sa <laughs> juróom yi def li sax ak yoo xam si maanaam masale bi daal bu damaa yemu subal na ko sàng sama sëriñ bi moom macha allah bëgguma lii kii ko. waaw déet moom kay xam nga oustaz euh, kii waaw mais xam nga déet duñ ko supprimer parce que comme que tamit dañ fi daan indi ay masala yoo xam ne dañ ciy ànd ak moom xëy na masala boo xam ne tamit daf ñoo jaaxal foog ñu indi ko loolu mooy amaana almiya loolu mooy amaana almiya masala bi wax dëgg yàlla ah. man de néew ma du ci ànd ak moom de waaye xam naa ne man daw daal man daal daa jaxasoo ko comprendre daal dëgg yàlla bii moom mokkut xëy na wax dëgg yàlla ñun moom dañoo jàng dara ci affaire fiqh moo tax xëy na moo tax waaye daal masala bi moom jaxasoo na lool lool lool lool lool lool waaw xëy na problème bi mooy waa ji sax waa ji réagiragul waa ji réagiragul mooy est-ce que l'islam ça veut dire dafay aj doom ji ci waa ji euh, wala islam du ko aj doom du aj xale bi ci waa ji xam nga loolu mooy première cause est-ce que l'islam dafay aj doom ji ci waa ji wala du ko ko aj du ko aj en attendant waaw loolu moom mooy première laaj yi nga xam ne man dama koy njëkk a laaj sax moom est-ce que l'islam da koy aj ci waa ji wala ci ci waa ji nag defal sa choix ba xam da saxal wala da ngay parce que ko euh, koo xam ne yow gisagoo ndaw sax xamagoo sax pratiquement nu mel loolu téléphone whatsapp wala ay skype yooyu nga koy gis xamagoo sax nu mel ñu bëgg la ko moom daal doy na waar daal euh, Cheikh Rawane ñu ngi euh, ginnaaw biñ jaajëfalee mbokk mi doon waxtaan di jaajëfal baax itam Cheikh Mourid Gadiaga ci mulaaxazaat yu am solo yooyu macha allah tabarakallah xam naa ñun sax foofu taxu doon ñu jóg di wax maanaam li Cheikh Mourid Gadiaga leeral ci audio boobu rek macha allah am na solo ñun daal liñ jàngoon ci téere bii di Misbaahu Saalik iqaaxuha fi lixtiyaari xulmu wa fi daruri wa fi daruri bi fi daruri waaye nag wal ismu julli nga tàbbal ko ci daruri ja deesu ko tudde fay des koy tudde ak waaye nag danga nga am bàkkaarub yéex ga nga yéexe julli ga ba yóbbu ko ca daruri ja bu fekkee ngànt waralu ko moom ci kanam tuuti nag moo lay wax ngant mooy lan kon julli bu fekkee da koo ko julli ca daruri ja te ngànt waralu ko am nga julli jooxe nga kenn doone la fay nga waaye nag am nga bàkkaar am maana bàkkaar ba toll nag ndax yu deme noonu loolu moom xëy na day yeneen téere yu ko yu ko yu ko kii waaye nag bu dee wàllu fiq jàng euh, téere yi rek li li borom xam-xam yi yaxal ci téer bi loolu moom fii rek lañ ci yam ngante ye nag borom téere bi moo la koy leeral ci kanamam maanaam masala mi daal wax de yàlla comme ni ko si amari waxee euh, maanaam lu bees la ci man ànd ak di jéggalu baax ak a tuub nag ci kii gi waaye nag xam-xam moo moo laaj loolu lu ceegi ne dañ koy wax ngir ngir ngir ngir lenn nag <coughs> salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Ah, cheikh bi ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax macha allah dars bi am na solo lool xam naa mu laaxasaat yi ñu ci def sax dara taxut ñu di ko def nag ah, dara taxut ñu di ko def ah, waaye xëy na sax sabqu lisaan la ci moom ndax boo déggee ni mu firee rek ni mu joxee maanaa mi moom macha allah baax na xëy na lee baat yi la am sabqu lisaan ci moom waaye macha allah di ko jéggalu bu wér a wér nag di ko di ko di ko jéggalu bu wér a wér a wér di jéggalu mbokk yépp xam nga wa waajibun fi ay waqtin yaqdi fawran ala ma faatahu min fardi mastaraka waqtan wujuban mushtarat tartibuhu wa xayru sa sartun faqat comme ni mu ko waxee euh, moom oustaz ñu ngi koy ziar baax lu war la ci waxtu nekk nga fay li la rawoon ci ay julli nga fay ko nag fay gu gaaw amul benn bu ko war a yeexantal lu dut na ko Cheikh waxe woon lu dut ne dangay ngay yittewoo loo xam ne dafay jëm ci sa biir te mënta ñàkk kon boobaa mën nga lijjanti loola ba noppi dooga dem fay julli ya man loo lekk wala lu sa njaboot lekk te loolu mënta xaar mastaraka waxtan wujuban mustarat mu ne julli yi nga xam ne dañoo bokk waxtu nag comme ni ko oustaz waxe léegi julli yooya nga tegale leen sart la ci comme ni nga ko waxee boo ko defut sëg julli baaxut waaw mastaraka waxtan wujuba mustarat maanaam julli yi nga xam ne ñoo bokk waxtu yooyu ab sart la ci nga tegale leen comme ni mu ko waxee tisbaar ak takkusaan da leen a bokk fa leb bala ngaa mën a julli takkusaan da ngay julli tisbaar ndax ñoo bokk waxtu loolu ab sart la ci mu ne waxeeru saa yu dut yi nag tartibuhu ah, waxeeru saa yu dut yi sartun sart tartibuhu ab toftale fàqat rek maanaam julli yoo xam ne bokkuñ waxtu nag lu mel ne timis ak gée maanaam tisbaar timis ak takkusaan ak timis yooyu bokkuñu waxtu yooyu bokkuñu waxtu waaye yooyu nag dañoo sart maanaam dañoo sart ci nga te tartib bi mooy toftale leen jiital takkusaan doogu julli timis ñu ne bu ko defut ñu ne bu ko defut day du tee nam tegalee baax na waaye dana am bàkkaarum ñàkk a toftale ga moo tax mu ne waxeyru saa budut bi sartum sart fàqat rek waaw sart la ci rek eh, salaam eh, xam na waaw salaamaaleykum wa rahmatullah oustaz ma fare allah waaw lii de moom mooy moom lañ leen xam woon yen yéen faqih yi moom doo leen bàyyi sama genre bi di indi ay ay monsieu naaru laay mu war mun a jàll te it comme que waxtaan bi macha allah dañ koy dugal ci YouTube bi damay sàkk sax mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo koy defar ku si mel ne oustaz Hamza Lay wala oustaz Modou Cissé balaa ñu kaa dugal ci YouTube bi ñu dugal ci audio bii nga xam ne oustaz Mouhamed Niang indiwaat na ko di leeral moo xifam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci baabu ijtihaad na ko dugal bi ci topp oustaz ma fari yéegal ci kaw nga xool sama audio boobu ma dugal parlemental masala boobu dimbali ñu ci yow oustaz Mourid Kadiaga masala boobu jaaxal nañu de ah waa ji nekk Europe ne nañ ko takkal doomu nijaayam ñu takkal ko doomu nijaayam mu nekk Europe di lijjanti kayit ñu ne ko fii ak at nga koy jot waa ji toog di xaar at pour mën a jël ñëw ndeysaan pour gisante ak soxna si mu toog ba at mi benn weer wala ñaari weer muy waajal woote rek ne maa ngi waaja ñëw ñu ne ko soxna si wasin na dafa amoon doom léegi nag ñu ne ko doom jooju noonu lislaam daf la koy jox yow mii di yow mii yow yaay waajuram parce que yaa takk ndeyam waaw masala ba mu wax dëgg yàlla moom moom moom moom doy na waar daal doy na waar waaw mu ne warattibil warattibil yasira ma xaadiratin ka arbain warattibil fawaiti foofu itam xëy na ci jëmmi baat bi la juum waaye jëmmi maanaa mi moom noonu la ndax dana warattibi na nga toftale al yasira way néew faat ya ma xaadiratin ànd ak yu liggéey yow ka arbain lu mel ne ñeenti rakka moom loolu la wax mu ne warattibi na nga toftale al fawaita way faat ya maanaam mu continué wabda na nga tàmbalee bi zuhrin ci tisbaar fii jami il mam si ci mboole mi ñu fàtte woon wanaasiyan mu ne aji fàtte fardan farata attaa na indi bil xam ci ci juróomeelu rakkaa ba loolu itam euh, bokkut ak li déggoon dañ ne warati bi na nga toppeel alyasira way néewi faatiha maxal xaa maxa xaadiratin ànd ak julli gu teew julli gi teew ka arbain lu mel ne ñeent xam nga bu nee ka arbain foofu wuute dafay am maanaam ñeenti julli ndax ci way néewi faat la bokk loolu boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne ñeenti julli moom ci way néewi yi la bokk li nga xam ne moom la ñu wute kay mooy juróomi julli ndax dafay bokk ci way néewi faat yi wala bokk ci way néewi faat yi loolu comme ne la ko Cheikh Khalil Ba tey junje woon maanaam dañ ne la boo amee bor ñeenti julli ba ñeenti julli baneen julli teew masal da ngaa def tisbaar tàkkusaan timis gee ba suba jot xam nga kon ñeenti julli nga am ñu ne da war a julli ñeenti julli yi yëpp doog a julli julli gii teew doonte suba doonte waxtoom dafay génn euh, loolu la euh, mu ne wanaasiyan fardan ata bil xamsi na indi juróomeel ba mu ne maanaam ki nga xam ne dafa fàtte juróomeelu farata maanaam dafa fàtte ak farata ci biir farata yi moom daal moom daal am na ak julli gum julliwut waaw waaye nag xamatut gan la xamut maanaam bis bi daal am na julli gu ko ci raw am na julli gu ko raw ci biir bis bi xamul tisbaar la xamul tàkkusaan xamul timis xamul gee xamul suba xamul gan laj booba dañ naan ko na indi juróomi ra juróomi julli yépp mooy ataa na nga indi bil xam si juróomi julli yépp te waa nag day tàmbalee ca tisbaar moo tax wot wabda bi zuhrin fi jamiil mansi ndax dañooy wax ne tisbaar mooy njëlbeenug julli maanaam julli gi nga xam ne moom lañ njëkk a ci sharia ñu ngi jéglu baax nag loolu lañ doon leeral du dara nag waaye leeral rek incha allah ñaan suñu borom def ci mbokk yi ñu ngi nuyuwaat ñëpp ak ziarat comme ni mu yelle suñu naa mbokk ci misbaax bi moom dafa mel na ci ay géndiku yu bare bare bare yoo xam ni fii day daara xam nga daara nag rawatina mu war a jóge fii ñu war koo taqale ji yóbbu ko ci internet ba te foofu bu fa xasee ba dem wala ma ni fii rek bu fa xasee ba ñëw fu ne mën na faa dem ñu ni waa majaalisul ilmi dafay génne ci matadik doomu aadama léeg-léeg du wàññi dara pour luñ ci mën a joyanti joyanti ko loolu rek la du xeeb kenn du nawloo sa lenn loolu rek la ñu waxtaanee ko rek bi rifqi wal liini eh, masala yooyu nga xam ne am na ci ku mu leerul ci moom ñi yàlla def mu leer leen ñu leeralante ko rek incha allahu taala mbokk mi loolu mu tàbbal bu dul jumte ci moom du sabqu lisaan ñàkk dégg waxtu fu mu la waxtu boo ci julliwul ñu ni faat nga ko mooy waxtul muxtaari maa daruri bu muxtaar jeexee julliwoo muy première heure daruri yu jeex julliwoo mooy deuxième heure kii lañ naan daa faat waxtu waxtu wii nag bu fekkee ni muxtaar ma day julliwoo nga bàyyi ba daruri yi ngay dóor a julli kooku dañ naan laa yéex ngaa julli rek waaye ci waxtu nga julli de da jooxe loolu la mm, mbokk mi waroon a àgg ci leeral waaye xam naa qasrul lisaani ajazahu an il bi hadihi al moom la borom téere bi wala borom bayti bi indi ni iqaauha tabbal julli fil ixtiyaar ci muxtaar xun moom ah loolu day kom la moom loolu day ku ko man moo gën wa fi daruri bàyyi ba ca daruri ngay dooru julli te amoo woon ngànt ca ah al ada jooxe la de maanaa ci waxtu nga julli de waaye wal ismu daa am bàkkaaru yéex a julli wallahu taala ala wa alam aleykum lu am solo ah, wax nga lu am solo xam nga ci daara <clears throat> lii lépp daara daara daara daara moo ko moo ko waral te itam dafay baax lool man su ma sañoon su ma defee dars ba noppi critique gi day jóg critique ah, gi day jóg su ko defee ma xoolaat sama bopp daw delluwaat ci téere yi ndax mën ngaa dégg dara jàpp ne nii nga dégg mooy noonu fekk déedéet am na leneen lu ko gën a leer wala lu ko gën a yaatu su ko defee ki xam nga naqd ak ak ak ak naqdul ilmi ak naqdu zaati yi bokkuñ naqdul ilmi mooy ki nga xam ne moom daf laa critiqué ci xam-xam naqdu zaati yi nag mooy ki nga xam ne moom sa jëmm lay critiqué loolu mooy différence bi su ko defee lii ci daara daal lii koy tax a neex waaw sama taalibe lu mel ne Fallou Thiaw day tëral dars wala sama booy bale di euh, rawaan tëral daf bu defee ustaas mooy daje ga jóge fële ne ko yow li nga wax foo ko teg ñu yéeg wàcc dem kaw dikk suuf waaw ñu ne ah ay la yéwén kat nangam la loolu mooy neexal daara xam daara bu njëkk dañ daa fite xam nga daara bu njëkk dañ daa fitante fitante mooy ku mën a bind baat sàngam ku mën a tare lobat roba sàngam wala ñu daal di indi masala sàngam ku ma koy leeralal kee wax ñu xëccoo léeg-léeg day dem ba àgg sax ñu dem ci sëriñ ba waaw sëriñ bi lii la wax nangam ñu xëccoo dem gàddu seeni téere waaxu dem ca sëriñ ba mu ne déet nangam nangam wax su ko defee nag ñu la tey yaa daanu la diwa daanu léegi lu mu ci jub lu ca gën a ji ngir jë daane jëm ni kii gën a gëstu ca xam-xam la tubarkàlla am na solo lool. ah dugg na ci biir waaw weer da fay nag weer weer wu ne weer wu ne eh, ni ñu koy waxee sax ñeent fukki yaas nag benn moom ngay jàng par bés defal na ko addiya ay bis gu nekk ajuma bu nekk ñeent fukki yaas nag benn. waaw Oustaz waaw noonu baax da <laughs> looloo tax groupe bi ñu waxul ja alxaq la zahaq al baatilu mu neex ma foofu moom amut amut amut amut amut amut ruubi amut dara waaw loo fay indi daal day leer nañ ñi waaw daara noonu la mel daara wërtu am wërtu am rusante wërtu am kii nay nay xam-xame rek nañ sa sopp xam-xam daal ak itam ñuy war maa leen ci seen biir bañ a kenn di attaqué jëmmi moroom waaye nañ attaquante ngir xam-xam rek ndax ñun ñëpp xam-xam la liggéeyal ñun ñëpp xam-xam la ñuy liggéeyal. Eh, waaleykum salaam wa rahmatulah Cheikh Malick Mbaye Bolle jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf masala yëpp de buñ ci mënoon am lii dinañ leen sant bu baax a baax baax a baax te moom dafa mel ne faqir yi nekk fi majal si dañoo génn oustaz Malick mbay Bolle oustaz Mourid oustaz Mafari sama taalibe ak oustaz Aboubacar Ndiaye macha allah eh, waaw lii de masala yi de leer na waaw sër bi de leer na waaye oustaz moom bàkkaar bi moom naka lay toll wala dañoo jàpp wala dañoo dañoo wax ne bàkkaar rek bàkkaar rek bàkkaar euh, mooy nga war a julli tisbaar di xoole di xoole di xoole bu moxtaar ba jeex waaye di xoole tamit ba dara bi jeex xam naa ne kooko sàggan na mel ni man de waaw sàggan na mel ni man dafa mel ne nag euh, faat waxtu moom bu fekkante ne côté faat waxtu la moom xëy na bàkkaar moo gën a rëy maa ngi doon dégg sëñ Aboubacar si Euh, suñ Aboubacar si Maodou muy Ndiol Fouta mi ngi ko doon wax ci benn kii di wax ne maam borom Touba indi na ko ci benn téere ci benn téereem ci gravité koo xam ne moom dafa faat waxtu ko moom gravité lu rëy rëy rëy la macha allah waaye daal toute façon xam naa ñu ngi lay sant ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf lii moom dinañ ko faral di def. <laughs> ah sama taalibe sama taalibe bal tëtalu yi bal tëtalu yi yow de sax boole woon naa la Euh, Fallou Thiaw sama asakay gerte joxoon nee naa ko jox naa ko rawaan sa wàll xam nga jox nga comme déet nag nee na ma nag moom rawaan jubut ma ne ko rawaan kay mooy mooy noonu rek léegi comme noonu suñ bay Abdou doon leerale mi ngi doon leeral ci euh, koo xam ne euh, maanaam ni ko Cheikh Xari war radiyallahu taala waxee ci mm, tasawud firaar mooy koo xam ne dafa yéex a julli ngir di ko weddi julli kooku moom murtad lañ koy jàppe ñaar bi mooy ki nga xam ne dafa yéex a julli ngir lànk julli waaw dafa yéex a julli weddiwul julli te waaye moom dafa lànk julli kooku moom la la wax naan dañuy bàyyi ba waxtu wa jot waxtu wa daruri jote yu dama noonu ñu ñoraay ko waaw waaye bokkute na ki nga xam dafa julli ci daruri ki moom dañ ne nañ ko bàyyi ba daruri ji waa ji jeex moom dafa lànk moom waaw loolu la ñu leeral bismillahi arrahmani irrahim mbokki majalisul ilmi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa maa ngi nuyu di ziyaare ñëpp ci àjjuma di ñaan yàlla mu boole ñu nangul te nangul bépp jullit barkeb alquranul karim sëriñ rawxaan ñu ngi lay ziyaara di ziyaara kilifa gi waxtu audio bi Cheikh Mouhamadul Amin Sall ak mboolem waa daara ji waaw fatwa bi mu def ci masala mi de comme nim la jaaxalee mën naa jaaxal ñu bari muy ka nekk réew sàngam takk soxna su na ci réew mii ñoom ñaar gisewuñu gisewuñu ba ñu xëy rek ñu ne soxna si am na doom ci sharia islaamiya ñu ne doom ji kële takkoon soxna si mooy baayam waaw loolu nag euh, liy mbir tey mbir mooy la muy tegtale rek mooy xarañug sharia xarañug sharia ci ay atem xarañug sharia ak dëgëram lool ci ay atem loolu mooy lan benn waaye nga réew nangam takk soxna su nekk ci beneen réew buñ toogee ba yàgg soxna si am bu am doom bu boobaa luy xew mbokk yi lan mooy xew ndax dañ naan soxna si ah, yow kat ki la takk giseewu leen doom ji doomu njaalo la wala ñu ne waaja yow ka nga takkoon am na doom te mosoo koo gis kon doom ji du doom doomu njaalo la loolu ku ko wax rek ku ko wax rek sharia war laa caw amel nga sharia juróom-ñett fukki yar euh, jàng nañ ci xadiisu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu tuddee xadfu yàq deru nit tuumaal ko njaaloog yu niroog yooyu mu bokk ci juróom-ñaari bakkaar yi gën a bon yi xalak nit ijtanibu qaalu wa ma hunna ya rasulallah qaal yonent bi bañ ko laajee juróom-ñaari bàkkaar yi xalak mu ne ashirku billahi wa sixru wa qatlu nafsi allati xaramaha allahu illa bilxaq wa aklu riba wa aklu maalil yatim wa tawalli yowma zaxfi juróom-ñaareel bi mooy wa qazful muminati almuxsanati alxaafilat yàq deru jullit yu jigéen yi rawat nañu sañew ñu fegu ñi alquran jàngal ñu ca suuratu nuur ne ñii xas nit ñi di leen tuumaal njaaloo ñooñu nañ leen caw juróom-ñetti fukki at fajliduhum samanina jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada gannaaw bu leen yàlla rëbboo nee nañ leen caw juróom-ñetti fukki te jàppee leen ay saay-saay matatuñ seede dootuñ leen nangul seede lu dul dañoo tuub tuub gu te mel sax day lu ñu tuub tuub mën nañ seede ci yeneen yi lu dul liñ leen gëtane woon comme li ngeen ko xamee waaw léegi nag kon benn waay takk na soxna soxna si am na doom waaja nga réew nangam soxna si a ngi réew nangam gisewuñu eh, eh, bu soxna si amee doom luy xew mooy li mu wax léegi ñu ne waa ji yow kat juróo gi ngir nangam wala soxna si yow kat sa doom ji kañ la may juróo ko ngir nangam bu waa ko wax loolu rek ñu war laa xaddu xaddul xas fi jàppee la ab faasiq loolu mooy atteb sharia muy yaxu alquran di di di lu leer kon luy xew mooy dañuy xamal waa ji ne ko ah soxna si kat am na doom ne tekk di ko déglu bu waaju ne waaw baax na ngénte ngénteem yoonu kenn nekkut ci rawat na bu waa ji ne waaw doom ji sama doom la maa ko jur euh, kon bu waa ji buñ ko xamalee ne soxna si am na doom mu xam ne soxna si am na doom waxul dara kenn amul sañ-sañu noo ko ah waxal yaa jur doom ji wala juróo koog nangam nangam déet yooyu boo ko defee yaa ngay taxarit yaa ngay gaaral tuumal soxna si njaalo euh, moo tax bu boobaa yoonu kenn da nekkul dañuy bàyyi waaja ak doomam bés bu faatoo doom ji da koy donn bés bu doom ji faatoo bay faale moom dafa am àq ci donn ko xaq yi daw diggante way juróom doom day daw seen diggante loolu yeen yoonu kenn nekkut ci mu def nag bi nga xamee ne waaja xamal nañu ne ko ah, soxna si doom mu ne ah doom ji jur ma ko ndax soxna si bañ ma ko mayee gis ma ko nangam nangam waaw kay kon day bu boobaa euh, la cay topp mooy soxna si nangul ko ne ko ah wax nga dëgg de bañ fasee sëy suñ diggante ba léegi gisewuñ kon doom ji du sa doom waaw kon day sharia nangu ne doom ji waa ji juru ko lu lu xew soxna si dafa njaaloo bu saxee ne dafa njaaloo sharia xaddu ko xaddu zina Euh, mën naa am it man naa am daa am ko ko forcé tëddee ko wala daa am ko ko dorogee tàggali ko sagom ak yu niroog yooyu yàlla xam yooyu de àttekat da koy lijjanti euh, bu fekkee nag waa ji nee naa doom ji kat juróoma ko bañ ko xamee ne soxna si am na doom mu ne doom ji du sama doom ndax soxna si bañ ma ko may tey gisuma ko gisewuñu euh, soxna si weddi ko ne ko ah ko jur nangam nangam ah bu boobaa charia da leen déglu ñoom ñaar ñëpp kii wax na kii wax waa ji charia dana ko nangul léegi nañ dem ci kanam àttekat ñu leaan mu gën ay ngëñam dàq ne moom jurul doom ji charia nangul ko ne ko aw juróo ko waaw kon doom ji du doomam kenn du ko boole ci askanam euh, waaye soxna bu dee dëgër na liaan gëñ kazalika charia dana ko ne ah doom ji kat ko ndax dàq na ko waaye moom it amul daan bu ko charia di teg ndax gëñam yooyu euh, loolu it lu mën a am la bu boobaa kon waa ji rek moo mën a dàq doom ji ci benn ci ñaari anam yooyu dàq na ne juró ko sa nangul ko ne ko juró ko wala soxna sa ne ko yaa ko jur mu gëñoo ak moom loolu mooy àtteb sharia te mooy wane dëgërug sharia ak xarañam it ndax liy mbir tey mbir mooy waa ji bañ koo mayee soxna si nit ñi liñ xam ci zaahir li feeñ day mooy ñoom ñaar gisewuñ waaye kan moo toppoon ci gannaaw waa ji booba ba léegi fu mu yendoo la fu mu fanaan nga xam ko ba mu wóor la ne moo soxna si gisee wuñ wala nga toppan ci gannaaw soxna si noonu euh, beneen bi mooy ak fii jamono toll li xam-xam indi tey góor ak jigéen ñu mën a jël ci góor jël ci jigéen boolante ba doom sosu te ñoom ñaar gisewuñ yooyu ak yeneen ak yeneen rek tax na lu mel noonu daal bu xewoon am na kuñ may soxna soxna si am na doom te ñoom ñaar eh, bokkuñ sax yooyu nekk mësuñoo gisee liñ sañ yëpp yëpp yëpp yëpp mooy waaja nañ ko yëgal ne soxna si am na doom bu ne doom ji doomam la yoonu kenn nekku ci ku ne ko du sa doom sariya coow la juróom-ñett fukki at jàppee la ab saay saay waaye rëbbum yàlla nga lay xaarit maanaam def nga bàkkaar bu rëy rëy boo xam ne bokk na ci bàkkaar yi xalaat nga war koo tuub rawat na bu waaj ne doom ji sama doom la kenn sañu ko wet ne ko juróo doom ji di liggante noo ko juree foo jaar bu jur ko yooyu yoonu kenn nekkut ci waaw ñi ciy laaj dalil dalil bi kay sëriñ bi wax na ko mooy al waladu lil firaashi wa yonent sallallahu alayhi wasallam moo ko wax jigéen bu amee boroom kër maye nañ ko sëy bi wér na bu amee doom yoonu kenn nekkut ci boroom kër gi rek moo mën a taxaw dàq doom gi ne si nangul ko ne ko juróo ko sharia ko dàq wala boroom kër gi dàq ko soxna si weddi ko ne ko yaa ko jur ñu leexaan ñoom ñaar bu leexaan ka taxawee sharia door a dàq doom ja euh, loolu rek yaakaar naa mooy àtte bi wala ku fi bëgg indi beneen ate bi bokk ak boobu Euh, na naka lay deme ndax bu lii amee dañuy taxaw waajal ne ko par force juróo doom bi wala bay soxna si am doom rek nit daa ñëw ne ko doom ji kañ la may juróo loolu ku ko def nooy def ak xaddul euh, xasu ak ni ko sharia jàngale salaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Souleymane Badiane ñoo lay nuyu dee siyaar baax di la jox sa wàcc waay am na solo lool Cheikh Souleymane Badiane wax ji nga wax lan mooy wéeruwaay bi bu fekkoon jëkkër ji dafa noppi waxu sa wala jëkkër ji jëw daan man maa ko jur sa gisuñu fenn fu mu mos a ñëwee si dëkk bi mosunoo gis moom ndaw si bu ndajee benn yoon mu ni maa jur sariya ni ko yow yaa jur ba li nga wax ni nag bu fekkee ndaw si da ko ni yaa jur jëkkër ji ni ko juruma dañuy liaan bu dee àttee bu dee si masala mel nii masala mi moom du sam liaan bu dee masala mel nii ñoom ñaar mosunoo fu nu dajee kee nekk penku kee nekk soow wala kii réew réew sàngam kee nekk réew sàngam ndaw sa ëmb ni ko yaa ma ëmbal jëkkër ja bañ liaan du ci musa am macha allah ci li ma gisagun ñoo lay nuyu de siyaara baax a baax a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñu nuyu di siyaara bu baax Cheikh Souleymane Badiane ak euh, leeral yi am solo yi mu def ci audio bu sëñ Lamine Sall bi euh, leeral yi am na solo macha allah jëriñ nañ ci lool waaye dafa mel ni dama seetlu ak wuute ci sa wax ji Cheikh Souleymane ak waxu sëñ Lamine bi dafa mel ne sëñ Lamine bi dafa itlaaq moo ko jur bokkut ak nag yow wax ji nga wax ne maanaam moo ko jur su ko wéralee moom la ñuy xaar est ce que moom lañuy xaar ak itlaax bi ñaari wax yi man nañu ne ne ku ñu benn dafa mel ne ci ni ma jàngatee léegi nag euh, kon est ce que kon itlaax bi du nekk njuumte ne moo ko jur mutlaqan wala moo ko jur su ko su ko su wéelee de moo ko jur ban ban ban moo ci ban moo ci yow bi ngay bi ngay tarjix ban la ci ci wax wax yi daal dafa mel ne eh, li li ngay wax ak li ñu déggoon ci audio bi xaw na wuute tuuti te li ñu wuute mooy itlaaq dafa am fële moo ko jur fii ci yow mu am moo ko jur su ko wéyalee su ko wéyalee ndax eh, ki nga xam ne moom dafa nekk ak soxnaam ñuy xëy di gont di fanaan ba soxna si am doom kooku kenn du xaar naan moo ko jur bu ko wéyeeleeg bu ko wéyelul dafa mel ne euh, moom moo ko jur waaye nag li tax ñuy indi sikki sàkk bi mooy ñàkk gise daf caa am ñàkk gise googu nag nga wax ne su fekkee ne wéyal na ko moo ko jur ndax al waladu lil firaasi wa lil aahil lil xajar waaw nag kon dafa mel ne bokkut ak moo ko jur mutlaqan nga xam ne même su ko diingatee su su weddee loolu moom jëkkër ji dafa mel ne day dal ci kawam daal ci ni ma déggee ci audio bu njëkk bu sëñ la mel bi leen di bu baax baax di leen wàcce seen wàccaay waa sëriñ bi man di may leerlu mooy bu fekkente ne waa ji nee na man juróoma doom ji ndaw si itam d'accord ni ko juróo doom ji léegi sëy boobu dafay continuer di wér wala feeba dañ koy tas takkaat ko wala itam lu muy demee waaw nga xam ni nee na ko juruma ko mu ni ko juróo mu ni ko d'accord xam naa ni juróo ko sëy boobu day konne wala du konne ak doom ji itam ndax dafay doon wala du doon loolu daal daa bëgg ku ma ci leeral incha allah. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa kër gi yëpp di ziare ñëpp macha allah di nuyu kilifa yëpp rawatina Oustaz Souleymane Badiane a teg sama loxo nii. xam naa di am laaj bu may laaj foofu rek euh, ndax lii di test ADN te muy xool deretu euh, xale bi ak bu woy jur bi ndax méngoo nañ wala méngoowuñu te docteur yi di ko def ndax loolu euh, sariya nangu na ko moom lay laaj ndax sariya nangu na loolu test ADN asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki majaalis ñu leen di nuyu bu baax leen ziar di leen waaw xam naa masala mi moom jàppoon naa ni sax man duma ci wax waaye ku dem ci Muwatta xadis bi di ko fa fekk ki ñëwoon ci Seydina Ousmane ni ko man de sama soxna dafa am doom ci juróom benn weer lu teewoon mu ni ko alwaladu lil firaash comme ba xale ba di juddu mi ngi ci sëyam lu teewoon Seydina Ousmane wax ko loolu waaye Seydina Ousmane sax donte lislaam sax juróom benn weer la wax ca aaya ba comme ni ko naa Aliyin waxee nii waaye nag dani ko kooku dafa njaaloo andi leen àtte bi ñu teg ko ci kawam euh, jàpp naa téere fiq yi nag ku ci dugg tamit euh, lu mel ni siraaju saalik day wax ni euh, góor buñ ko mayee jigéen ca dëkk bu sore sore sore jigéen ji dëkk nekk ci dëkk bu sore sore sore te seenug daje ñoom ñaar mënta nekk bu jigéen ji amee doom du ni góor gi mooy baayam nga xam ni rëbbante rëbb sax du ci am moom bu doon weddi du rëbb day ñëw rek ni ko juruma ko dem yoonam même bu ko ndaw si ne yaa ko juri rëbbonte du ci am ah, yaakaar naa masala mii de ñun noonu lañ ko jàngee ci téere yi xam naa keneen ku ciy wax daal buñ mënee andil delluwaay bu gën a dëgër ba mu wóor ni téere yi ci masabu imaamu Malik rawatina xadis bii ak ni ko Ousmane attee am na mas am na leneen lu gën a wér loolu ci mazhab bi moom dinañ ko yittewoo lool incha allah. Ah, ñun daal li ñu jàng ci téere yi ci tënk mooy jigéen bu amee doom bu sëysee ci kër borom këram même bu ko fa fekkee sax moo tax ñuy wax de même bu ko fa fekkee bu amoon doom ci lu matul juróom-benn weer yi ñu wax am na téere yoo xam ne juróom-benn weer yi manqué nañ ci sax juróom-benn fan. ci teer ci fiq ci mazhabu imaamu Malik dañoo wax ni bu nee maa ko jur bu nee juru ko yépp lislaam danaan ko sa doom la tegtaloo ci aaya bii bu ko yéesee nag moom lislaam danaan ko juróo ko lislaam ci boppam moo naan ko juróo ko li tax loolu nag ñoom ci eh, asar bi imaamu Malik andi ca Usmaan ak kañ tegoon àtte ba ci kawam donte sax am na yeneen téere yoo xam ne da nga cee dem ñu ni la Seydina Alioune ba mu waxee lii dey dem nañ bii sax la dañoo fekk ñu teg àtte ba ca kawam am na téere yoo xam ne sax du ñu àgg ca loola loolu moo tax ci mazhab bi ñu ni bu matee juróom benn weer moom bu nee juróoma koog bu nee maa ko jur lislaam danaan ko sa doom la nga xam ni rëbbonte dong moo ko ciy génne bu fekkee matul juróomi weer nag bu nee juróoma ko lislaam ne la waaw waaw juróo ko kay lu tax kon dun ne ko wala lil firash moo tax daal masala mi daal war nañ koo leeral daal wala ñu andil ñun lu gën a leer li ñu dégg ñun wax dëgg yàlla. waaw Oustaz ñu ngi ziar baax Oustaz Mari xam naa masal bi dafa mel ni dafa xaw a jege te mel ni xaw na jege te xaw a wuute de sama gis-gisin waaw. Alaaji Murit maa ngi laa nuyu baax maa ngi lay ziara ba am nga jàmm alhamdulilah mu ngoog maa ngi tuub de dama. nekkoon ci yëfi ñoom imam Mansour Samb yi maa ngi topp seen waxtaan wi diggante Jóob Sëriñ Mouhamadul Amin Sàll ak taaliq bi ci Cheikh Souleymane indi donte wóotu nañ ci wet comme noonu ko Cheikh Modou Kama seetloo waaye yow li ngeen di fii nii nii nii nii moom est-ce que dana doy rek tegtaloo ngir ni doom jooj yi jëkkër joy ji yoo xam ne jotul la gisee soxla si juru ko ndax fii moom ci texte bi li ma fi gis defe naa danga ni am na soxna suñu indil bi Seydina Omar euh, Seydina osmaan mu am doom ci juróom benn weer Seydina osmaan digle ni nañ ko raj rajmu googu nag sama lënt lënt la ndax rajmu man li ma ci xamoon mooy ku am jëkkër ba tëdd ak moom njaaloo ko am jëkkër ba tëdd ak moom njaaloo lañ daa raj moom sama lënt lënt bi ci ñëw bi Seydina Ousmane ne nañ ko raj mu Seydina Ali ni ko ah moo ne day jarul raj mu de ndax ko mat na juróom benn weer amaana jëkkër jee ko jur de amaana jëkkër jee ko jur de ndax ëmb juróom benn weer mën naa nekk indil ko waxam lahu saalihu salaasuna sahra indil ko wal walidaat yurdi'na awlaadahunna xawleeni kaamileeni xawleeni kaamileeni vingt-quatre mois la boo ci plissé sittati euh, ashurin yi ndaw si déclaré ni ci la ëmb loolu salaasuuna sahran la dégg ko loolu tax moom Seydina Ali mu ne ko ëmb mën naa doon juróom benn weer kon kii jarul raj mu nee na Seydina daal di yable ngir dabi soxna soosa ak ñam santoon atte booba waaye ba gaañ demee fekk nañu raj mu ñu soxna sax léegi fii nii est-ce que dafa laale ak li ñuy wax ndax kii kat dafa mel ne soxna si ëmb juróom benn weer la am doom ëmb juróom benn weer la am doom ñuy werante ci ni ndax jëkkër jaa walla du jëkkër ja Seydina Ali ni jëkkër jaa ndax sama jabar dama ko takkeeg léegi juróom benn weer mënuma ko fay jur su booba Seydina Ali nee na ko mën nga ko jur dem laale ngeen fi rek boobaak léegi mat na six mois mën ko ko jur mais bu fekkee ni du ci juróom benn weer yi xanaa kon ëmb gee jiitu takk gi su boobaa ëmb googa ëmb googa ëmb googa la na ci jur raj mu sama sama lënt lënt ngoog fii ndax raj mu liñ ci xamoon mooy am jëkkër ba tëdd moom wëlbatiku njaaloo ñu ni nañ ko raj mu waaleykum salaam wa rahmatullah waa sama sëriñ oustaz Malick maa ngi lay nuyu di la ziar waaw xam nga <laughs> bépp xaddis boo xamante ni da koy jàng rawatina bu dee ci wàllu fiq faaw boo gisee manaan la lan mooy mafhumu alwaladu lil firaash ndax alwaladu lil firaash bu fekkee comme mbokk mi ni mu ko bëgg a àttee eh, noonu dana saxal doom kon nii dina saxal doom loolu laa bëgg a wax kon nii moo gën a yey sax ñu saxal ci doom koo xamante ni dafa am doom ci lu matul juróom benn weer lu tax mooy ba muy am doom ci ëpp sëyam la juddoo foofu laa bëgg a waxee eh, xadis bi dafa dafa leer boroom xam-xam yi dafa am nu ñuy saxalee doom ak nuñ koy dàqee maanaam lislaam laa wax lislaam dafa am nu muy saxalee doom ak nu mu koy dàqee na ko lislaam bi saxalee nag bu ko bu la ko saxalee ba pare boo ko dàqee tamit lislaam danaan la sa doom la na ko lislaam di dàqee tamit boo ko saxalee tamit danaan danaan la du sa doom ni koy saxalee bokk na ci xam nga bu doon du lil firaash rek la ñuy wax kon moom même même ku sa ku sa soxna am doom ci juróomi weer sax mën nga ni alwaladu lil firaash ndax bi bi muy am doom mi ngi ci sama takk ndax même euh, bu ko defee nga ñëwaat ci alwaladu lil firaash boroom xam-xam yi liñ ci wax mooy bu xasee mat juróom benn weer moom da naan ci ab sëyam ci ab sëyam la juddoo moo ko jur juru ko lislaam moom nee na ko yaa ko jur bu ko bëggoon a dàq rëbboo moo ko ci génne waaye bu matul juróom benn weer bu ko bëggoon a dàq rëbboo du ko ci génne bu dee ci anam gii tamit ñaari ñaar ñuy sëy musuñoo gisante amul fenn fu yoon mën a nangoo nit gisante gii kat war naa mën a nekk doom bu ca juddoo tamit lislaam du ni ko yaa ko jur de ndax même bu ñëwoon dàq tamit lislaam da lislaam du ni ko waatal xam nga fu ko lislaam doon waatloo bu fekkoon may nañ ko soxna sax soxna si fekk ko ci kër gi ba pare ba jote am seen diggante ñoom ñaar mu daal di tukki bu ñëwee at yum fa am lu mu bari bari bu ñëwee fekk fa liir bu tooy xëpp bu ne ko juruma lislaam du ni ko demal de lislaam danaan ko sa doom la kii rëbboo moo ko ci génne waaye kële ñuy wax nag ñaar ñu sorante ñële bu ko dee dàq rëbboo rëbboo sax du ko def waaw loolu nag ku am lu gën a leer lii moom bismillah euh, soxla nañu ko asalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara yaa kër gi macha allah Cheikh Souleymane ñu lay ziyaara baax ci leer li am na solo lool comme noonu nga ko xamee rek noonu nga ko waxee rek ñu jàng ko noonu ci euh, na jàng ko ci kutubul malike yi li ngay junj mooy istilxaq istilxaq mooy nit ki dabu doomam yéegoo ko wax yéegoo doom mooy bu fekkente ne ndaw si dafa ame doom ci buumuk sëy waaye jëkkër ji moom nangu naa yéegoo doom ji kon boobaa doom ji moo ko moom comme noonu nga ko leer la boo demee ci fiqhul mudwana fiqhul maliki bu abdourahman li xirayaan yi noonu mu ko leerale bu fekkente ne nag jëkkër ji dàq na ne jurut doom ji moom lixaan rek moo am moo moo bu fekkee moom nangu naa doomoo doom ji moom euh, su ko defee dañ ko koy yéegal su ko defee muskile bi nekk foofu nag nit ñi dañuy faral di jaawale al waladu lil firaasi walil aahir al xijir maanaam bu ñu waxee alwaral lil firaas mooy ndaw si nga xam ne bi muy am doom di ko jële ci njaaloo boobu mi ngi ci buumuk sëy waaw loolu moom jëkkër ji mën na koo istilhaq waaye bu fekkente ne bi mu am doom boobu ndaw si nekkagul ci buumu sëy ginnaaw bi la ko jëkkër ji doo a takk kon jëkkër ji mënta wëlbatikuwaat di dem di istilhaq ak doom ci maanaam bu fekkee ndaw si jëkkër ji bi mu jël si doom bi mu takk ndaw si fekkoon na ndaw si njaaloo woon ci la jëkk buumuk Euh, kon bu boobaa du mën a istilxaq doon waaw si amar ñu ngi lay ziyaar bu baax waaw mafhumul xadis li nga dégg ci alwadul lil firaas mooy ndaw si bi muy njaaloo booba mi ngi ci buumu sëy mu ngi ci buumuk sëy ginnaaw bi muy njaaloo mi ngi ci buumu sëy nag bu fekkee jëkkër ji wëlbatiku na istilxaq doom ji wëlbatiku na istilxaq doom ji maanaam yéegoo ko kon bu boobaa lislaam may na ko loola waaye bu fekkente ne nag moom ndaw si bi muy njaaloo booba nekkagul ci buumu sëy dafa njaaloo ba noppi doo a dem ci buumu sëy jëkkër ji nag sëñ ta nag di doomoo waat doom ci moo tax boo demee ci fiqhul mu doon ci euh, euh, mu doon fi fiqhil maliki xataa ba ci fiqhul maliki bu addilatuhu bu ibnu tahir sax ma ko cay leeral masalan fi ñu doon bi waa ji bu fekkonte ne ndaw si dafa jël njaaloo ci li jëkk muy sëy waa ji moom duñ ko may mu ñëw di askanoo doom ci waaw wala doom joo xam ne xam nañ askanam ba noppi waa ji bëgg ko ñëw istilxaq ko déedéet duñ ko liñ ko may kay mooy ndaw si bi muy njaaloo boobu mi ngi ci buumuk sëy a ah, ndaw si waa ji mën naa ñëw istilxaq doom ci ndax eh, imaam Malik dañoo wax ca wax juñ ci askanle ca almudwana ne laa yalxaqu nasab maxa isbaatul xadd waaw ah, laa yalxaqu nasab maxa isbaatul xadd waaleykum salaam wa rahmatullah waaw sëriñ bi bi waa ji dàqee ne jurul doom ji soxna si ne ko juróo ko loola du tax sëy ba xanaa waa ji fase ko waaye bu dee waa ji fase ko ba day continuer daa fekk nag ne bu dee soxna saa euh, borom këram dàq ne ko ëmb bi bàyyi ko ci man soxna si nangulul ñoom ñaar duñ mën a jote borom kër gi du tas de waaye du sañ a jote ak soxna si nag maanaam du du du roose njëmbatum jàmbur ni ko yontu sallallahu alayhi wa sallam Euh, doom ja déedéet du doonoon ndax doom du doomi waaji xanaa yaayam lay doon waaye moo waaji kay dara boolewut leen euh, mu def nag bu fekkoon ne bi ko waaji ne juróoma doom ji soxna si daf ko yaa ko jur am kon day bu boobaa sharia bu taxay sëy ñoom ñaar dootu maanaam sa sëy daa war a tas amul sax banda zawji waaye abadan dootuñu mën a dencante waaw kay tabarakallahu masha allah gendiku yu am na solo xam naa ànd naa ak yow ci bari waaye dafa mel na mag yow bokkuñu ni ñu déggee al wala du lil firaash jàpp nga ni koo xasa takk moom boo ko takkoon cinq heures tey timis mu am doom doom jooju sa doom la liñ bëgg a wax ndax al wala du lil man déggeewu ma noonu al wala du lil jàpp naa ne wala du bañ koy wax mooy soxna si danga koo takk takk gi wéer ci sariya xam nga takku ko ci kaw ëmb euh, ci biir takk gi nag la fi njaaloo la fi ëmb ba wësin fi ñu ni alwaladu lil firaas dafa mel ne mag yow wuute nañ ci ni ñu dégg alwaladu lil firaas man nag maa ngi topp di xool ba xam li Serigne Lamine Sall wax ak li Serigne Souleymane Badiane andi ku may indil ay tegtal yu gën a wóoru ci Eh, waxi borom xam-xam nekk seen téere Malik ibn Anas wa wa rahmatullah waaw sëriñ bi xadis bi beneen masala la maanaam soxna si ñu maye mu am doom eh, lu matul juróom benn weer biñ ko maye ak tey kooku li muy mooy ba ñuy fas sëy ba booba mi ngees doomam loolu jotewul ak alwaradu lil firaash dara ndax al waladu lil firaash walad day ñëw gannaaw bu firaash amee jigéen ji mi ngi ci sëy doom sosu looloo tax ñuy wax amma euh, doom joo xam ne moom sosu woon na njëkk sëy di am nga doom ji walad bi xablal firaash lawoon woon loolu beneen masala loolu ñu ngi ci buntab nikaaxul mu'taddati maanaam sëy bi bu dee ci madhab Maalik rawat na dañ ko war a tas bu dee waa ji jote na ak soxna si sukkandikoo takk gém ko takkoon jamono yi ñu takk soxna si warutoon koo mën takk ndax soxna si booba mi ngi ci adda mi ngi ci istibra aywa beneen bi mooy loolu ci siraaju salik muy ñaari way dencante yi nga xam ne sore nañ sore yoo xam ne mënuñoo gisee nekk penk kii ne soow nga xam ne mënuñoo gisee loolu bokk ak suñ jamono ji nga xam ne tey ñaari ñi mën nañoo sore lool waaye mën nañoo gisee ci diirum ñaari fan ak ñett ndax jumtukaay dem dikki dikk euh, lu ci ne dafa jàppande moom daal euh, lu lu lu am solo la waaye nañu xam rek ne bu dee xadis bi moom lim ñuy jàngal mooy soxna sax bañ koy may waaja booba soxna saa ngi ànd ak doom bokkul ak mukk soxna si nga xam ne mi ngi ci buumu sëy ba noppi doom door a soto waaleykum salaam wa rahmatullah waaw jërëjëf Cheikh Mouhamed Kama maa ngi lay ziara ah kay daa mel ni wax yi benn la doo fekk ne sëñ bi comme audio bi ni mu gàttee daa xaw a gàttal ci masala mi jubluwut a waaye bu tafsiloon li ñu wax rek yaakaar naa ne moom lay indi ndax euh, moo ko jur mutlaxan ngi moom euh, maanaam mooy bu fekkee rek jublu ko génnee ci askanam moom borom kër gi te kii takkoon soxna dëkk ak moom ci benn kër benn néeg ñetti at ñeenti at soxna si xëy ëmb mu ne ko ëmb bi bàyyi ko ci man it benn lañ maanaam bu fekkee borom kër gi dafa jubloo dàq doom ju bàyyi ko ci soxna moom moo koy dàq ci boppam ba mu ko dàqee soxna si mën na koo nangul ne ko wax nga dëgg waa doom ja du yëg ci askanam wala soxna si weddi ko ñu liaan bu liaanee yëpp doom jooju dootul yëg ci askanam loolu euh, moo xam dañoo sore dañoo dëkk yëpp àtt benn la àtt yi benn lañ ci wet yëpp daa fekk rek ne sëñ bi xëy na daa xaw a gàttal ba jubluwut a tafsil li ci aju yëpp aleykum wa rahmatullah Cheikh Souleymane Badiane ñoo lay ziar baax Cheikh na Souleymane Badiane masala mi génn si liaan liaan amu si masala mi génn si liaan jëkkër ji bu demoon ba bëgg koo dàq mën na koo dàq sax sa jëruñu liaan waaleykum salaam wa sama sëriñ maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jaajëfal waa xam nga man <laughs> al al wala al waladu lil firaash eh, man xam naa man jàpp naa ne xam naa li ci yonent bi sallallahu mooy comme nii nga ko waxee yow waaye sëriñ Cheikh Mouhamadul Amin Sall ni mu ko bëgg a laa ni jàppeewu ma ni noona la xam nga ñaari mbir dafa am mooy ki nga xamante ni dañ koo may soxna mu fekk ko ca kër ga bañ xam ni fekk na ko ca kër ga mu bàyyi ko fi tukki dem kooku lu mu yàgg-yàgg bu ñëwee bu amee doom lislaam danaan ko sa doom la ndax kat du wéet ngeen wéetaay boo xamante ni luy waral doom sosu am na ca waaye ki nga xamante ni dañ koo may soxna fekk ma nga bitim réew musuñoo gisee ñoom ñaar xam nga ci ma wax léegi nii tey bu sama doom rek du ko ci génn de bu ko soxna si ne yaa ko jur mu ne ko juróoma ko rëbboo rek moo leen ciy génne lu tax mooy mos nañoo wéet wéetaay boo xamante ni luy doom lu waral doom sosu am na ca maanaam masala mi dafa am sew-sew bu ci nekk léegi bu ko defee nag ka nga xamante ni dafa nekk fu fu soree sori soxna sa nekk fu soree sori te seenug daje ñoom ñaar mënta nekk maanaam mënta nekk moom ku nekk maanaam ku ne fi ma fi may waxee di nga ko xam foofa bu bu doom amee ku góor ki bu ñëwee ni du sama doom l'islam danaan ko wax nga dëgg rëbboo du ca am lan mooy seen différence ñoom ñaar ñi sew sew bi ne ci seen différence ñoom ñaar ñii la moom laa bëgg a xamal sëriñ bële ni ko masala mii bokkul ak ni mu ko bëgg a jàppee bokkul ak euh, maanaam li nga xamante ni noonu la nekkee kii nga xamante ni du ko sañ a mooy mos nañoo wéet waaye kii ñëw di ko kooka rëbboo moo ko ciy génne waaye ki nga xamante ni mosuñoo wéet ñoom ñaar kookee lislaam danaan ko du sa doom kooke lislaam danaan ko du léegi lu lu tax mu naan ko du sa doom bu taxawee ñëw ni du sama doom danaan ko wax nga dëgg bu taxawee ni du sama doom lislaam danaan ko wax na wax nga dëgg moonte ci ab sëyam la juddoo wax nga dëgg li aanu maanaam rëbbonte waatum rëbbonte bum la ci fekk wax nga dëgg demal sa yoon waaye ki ma njëkk a wax nag bu nee bu nee bu nee du sama doom lislaam danaan ko déedéet sa doom la bu bëggee bañ rëbboo moo ko ci génne loolu moo tax ñaari yi bokkut ah, ah Pape ji naka lay dàqal li aan maanaam naka la ci li aan mën a nekk bu fekkee jëkkër ji dàq na ne ëmb bi maanaam ëmb ko bi dàqoon ne ëmb bi juru ko da booba lislaam da bi xadis ndax fi la dëkk ndax fii la ko dëkk al al alwaladu li firage ndax fii la dëkk ndax hadis bi gis ngeen histoire bi ko taxoon na jóg macha allah waaye bu fekkee loolu la ndaw si ana lan mooy tegtale bi koy jëkkër ji takk ëmbul ana lan moo koy tegtale luy tegtale bu koy jëkkër ji takk ëmbul ndax jëkkër ji musa sëy ak moom moom musa sëy ak moom macha allah ma Mafari ñoo lay ziar baax ma Mafari boo demee fii Muxtasaru Xalil nee na fekkee ndaw si dafa woote daal ni jëkkër ji moo jur doom ji jëkkër ji dàq ko te ñoom ñaar mosunoo dajee comme kii nekk penku kii nekk soow sowu sayxu xali nee na mën naa dàq doom ja sa du leen loolu sayxu xali ma ngi koy wax wala bu fekkoon bi ñu koy may jëkkër ji boobu jëkkër ji xale la wala jëkkër ji kat dañoo bummi ay awraam yooyu yëpp mën naa dàq ëm bi sa doon du def li aan waaleykum salaam wa rahmatullah waaw sëriñ bi maa ngi lay ziara man nag awalan lastu min fursaani may daan waaye nag euh, test ADN nag nawazil yi nga xam ne jamono indi na ko xam-xam yegg na fa mbir la yoo xam ne ak li muy am am solo nag sharia du ko doyloo du ko sukkandikoo ndax lépp lu laal askan lu laal dar lu yàq dara lu koy ñoŋal yooyu sharia da cee kafut réewut ci donte sharia kaful réewul ci benn atem waaye lii da cee mayewut dara lu lu lu lu dëgër daal lu xarañ moo koy moo koy saxal lu mel ni i'tiraaf am euh, mu ngi mel ni xeetu caméra yi xaw mën a war a image diw ak diw ñuy def nangam waaye yooyu yëpp rek sharia la mu bëggoon euh, i'tiraaf day am wala arbaatu shuhada bu dee ci saxal njaalo yu mel noonu génnee nit ci askanam ngir xool na deret nangam nangam déedéet yooyu machine yi koy def nii liggéeyu doomu aadama rek man njuumte mën na ca am waaye machine ba ba mu defee la muy def sax day ñay joxa am xam-xam di joxewaat xabaar yaag la machine ba wax mën nañoo juum mën nañoo bañ a doon ñu maandu sax ñoo xam ne seen wax sharia du ko déglu ci buntu yu mel nii kon daal ci gàttal man gis naa ne yooyu sharia du ko doyloo aywa sharia daal ay atem da koy teg ci da koy xarañee takk ko takk goo xam ne moom maara day taar yi dëgër ga ko takk rek da koy weesu waaw waaw oustaz Papa wax nga dëgg wax nga dëgg sew sew xel maa xaw gëj ci téere yi lool damaa xaw a gëj ci téere yi lool te fekk moom daa bari ay sew sew yu sew sax waaw jërëjëf jërëjëf ci leeral gi ak ak joxe gi ma ak joxaat ab dars jërëjëf waaw sëriñ bi maa ngi lay nuyu di la ziyaara macha allah euh, man nag masala mi damaa jàpp ne sëñ Mouhamadul Amin Sall xëy na daa xawa gàttal ci masala mi jubluwut ci taxawal leeral ruq-ruqaan yi ci aju waaye bu ci taxawoon yi ngay ñëw yëpp incha allahu dana ci ñëw euh, waaye li ma bëggoon a bàyyi xel fii rek mooy jamono yi jamono yi ay jamono jamono yi ñuy bind rawat na misdaaw saalik wala téere yu ko jiitu bu góor nekkoon Amérique ñu may ko soxna fii ci Sénégal ñu toog at wala ñaari at soxna si am doom bu waaw moom ñëpp dañuy mën a waat ci yàlla ne moom ñaari ñuy gisewuñ foofa leexaan amu fa place mu ngi mel ni kiñ may soxna fekk maj la amul sax xawra bu mu sëyee kooku bu soxna soxna amee doom li am na mu place ndax moom xam ne bàyyikool fi moom loolu nag xaw a wute tuuti suñ jamonoy tay jii nga xam ne daanaka soree kooku moom jamono da ko xaw a nekk Amérique ñu may ko soxna Sénégal du tee ñaari fan wala ñetti fan mën nañoo gisee imma sa dem wala moom mu ñëw wala euh, ñu dajee ci beneen barab ñoom ñaar nga xam ne euh, ni ko fuqahaa yi doon jàngalee nga xam ne sore nañ sore bu toll ni mënuñoo gisante wóor na ne diggante bi ñoom ñaar moom ñëpp am nañ yàqin ci ne gisewuñ fi bokkeewul ak suñ jamonoy tey jii ndax fa jamono tolloon ak fi mu toll tey moo xaw a wuti te am na ci masala yi nag yoo xam ne jamono da ko euh, jamono joo rek war a bàyyi xel jamono toll mooy tax ñu mën caa am taxawaay bu gën a leer daal. salaamaaleykum wa rahmatullah groupe Majalis maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di nuyu imaam Malick Mbaye boole di leen siyaar lu bëree bëree bëri. waaw di wax ni li nga seetlu ci xadis bi rek xam naa ne xadis bi da bu fekkente ni sanad bi wér na itam xadis bi moom am na problème matan bi mënta baax ndaxte seetlu boobu nga ci am daal bu ñu ko ci seetloo xadis bi moom mënta wér mënta wér ndaxte premièrement euh, euh, ndaw su ëmb. boroom këram ñëw di wax uh, ci àttekat bi ni ko sama jabar dafa ëmb te bi ma ko takkee léegi wuru fi mën a ëmb àttekat bi la la muy wax ni ko wax nga dëgg rek daal di ni dem leen raj mu ko premièrement kooku waree su ko raj ma wax ni ko waxee ëmb boobu avant muy sëy xëy na la ko am te ku sëyul ku sëyagut ku sañewut kenn du ko rañu deuxièmement comme que dafa ëmb ab ëmb la di boo xam ne daa teel ku ëmb itam kenn du ko rañu dañuy bàyyi bam am doom ba doom ja nàmp ba fer premièrement kon foofu am na problème foofu xadis bi am na fi problème deuxièmement euh, bi euh, Seydina Aliou yéegee xew-xew bi ñëw wax ko leeral ko ni ko kii mooy jur doom ji ndax juróom benn weer la wax te juróom benn weer doom mën a sosu ñu dem di kare ji ñi nga xam ne ñoom lañ yeboloon ñëw fekk ñu def la ñuy def foo mën a xool xadis bi ci côté yëpp xadis bi eh, dara munu ci yoonu maanaa te pourtant xam naa ni <laughs> xa sama xam xaw ma dara ci xadis mais comme koy tegtal xam naa ne sanad bi wër na ma ni sanad bu wér la mais jëmi xadis bi moom foo ko topp dafay am problème lu mel ni nag mooy coow di am fan yi ci eh, xadis yi te xëy na ku ko wax ñu wax la la ca def waaw Cheikh ñu ngi lay ziar baax waaw waaw loolu nga doon jiñ mi ngi noonu ci almuduwana Fathul Maliki wax nga dëgg de damaa xaw a jot ci téere yi xaw damaa fët sax xaw damaa fët sa bi wata wata rek macha allah Cheikh Mafari ñoo lay ziar baax macha allah yow koy yokk nga ko leera macha allah yow koy sama waay euh, la fadda fuuka wala tabar ya daak am na solo lool macha allah bii dem du ko gën a sax yàlla na yàlla barkeel sama sëriñ maa ngi lay nuyu di la ziar waa yow sëriñ bi yow moom <laughs> te nga bañ ne bi am na problème yow neel yow yaa déggul xadis bi rek asar bi dafa yomb sama doom sama soxna dafa am doom la wax jigéen kay bu amee doom bu defee lu ñuy waral atte bi ci kawam bu amee doom bu amee ku ko mën a nàmpalal doom ji mën nañoo teg atte bi ci kawam xam nga moo tax euh, bu ngeen gisee yenn borom xam-xam yi di leeral ci mbirum xadis lu mel nii moo tax nekkul ku mu neex xadis buñ ko waxee déggoo ko rek nga ne xadis bi matn bi am na problème wala nangam am na problème du ñun ñooy wax matn bu boroom xam-xam yi ñoo ñu koy leeral euh, ñu ngi lay ziar bu baax de ñu ngi jéggalu bu baax a baax nag ñu ngi jéggalu bu baax. salaamaaleykum wa rahmatullah majaritu maa ngi leen di ziar bu baax a baax oustaz Souleymane wallahi maa ngi topp waxtaan bi de damaa rate nag lu bëree bëree bëri dafa mel te génne nga borom xam-xam yëpp macha allah ayyadakallah jërëjëf jërëjëf. Cheikh Souleymane nag moon nañ la am na benn waaye ndeysaan dafa ne ma oustaz Souleymane est dafa amul jot rek groupe ñu bokk yëpp macha allah gis nañ ne jamono ji yëpp sëriñ sëriñ bi amul jot moo tax waaye sa xarit oustaz mu wet gajjëg ngi la doon yóot wóotu fii te ak oustaz ak sa xarit oustaz mafari ñoom ñu ngi la doon wóotu bu baax a baax jërëjëf oustaz Souleymane waaw l'islam de moom dafa dafa dafa charia moom dafa dëgër waaye dafa maandu wax dëgg yàlla darsu bii de li ma jàngal leer na waaye ba léegi it euh, ah du mën a lënt lënt na sama bopp bi de waaye leer na de waaye doy na waar daal doy na waar yow sa fatwaay Oustaz Souleymane Badiane ci lañ doon dégg ñaa waa ji bu takkee ndaw si mu dem ba balaa moom man ñetti weer euh, ñetti weer ndaw si am doom ndaw si am doom kon ça veut waa ji juru ko damay dégg ñu ne dañuy tas dafa mel ne yow mi déglu naa la nga benn jour nga wax ko nga ne dañuy tas dañuy tas sëy boobu boobu ndaw si euh, wasi ne ba suñu borom may ko jàmm alhamdulilah rabbil alamin ñu takkaat sëy bi bu fekkente ne tamit ka ko biiral nag ngeen baal ma ci kàddu gi moom moo ko takkaat kooku moom daf koy xaraam loolu moom waaw léegi la moo tax kon sëy boobu ñu koy tas bu fekkente ne la moo tax ñuy tas sëy boobu noonu bu fekkente ne yow ndaw si dafa dugg ci waa ji dafa takk ndaw si ñetti weer rek ndaw si am doom la moo tax ñuy tas sëy boobu kon kay mën nañ ne ko rek kon kay euh, al waladu lil firaas kon waa ji moom moom doom ji jarul ñuy tas sëy bi la moo tax ñuy tas sëy boobu bi ñu topp Oustaz Souleymane mooy yow da nangu ne da nangu fii sharia dafa nangu ne technologie bi dafa avancé moo tax l'islam di moytu euh, wax dëgg yàlla Oustaz Souleymane kii nekk États-Unis ñoo xam ne ma nga États-Unis kii nekk Sénégal wax dëgg yàlla moom doom ji juru ko sharia nag xëy na dafa bëgg a jax dafa bëgg dafa bëgg jubal rek waaye wax dëgg yàlla moom waa ji jurul jurul jurul doom ji jurul doom ji de wax dëgg yàlla al waladul firaash boobu ah xam naa ne moom <laughs> sunu Sénégal gii ah xam naa ne buñ ko doon bëgg leeral moom jamono jii xam naa ne moom ah, yàlla na ma yàlla baal waaye njaaloo gi wax dëgg yàlla am na suñoo xam ne buñ jotee masala yii njaaloo dina xaw a bari jigéen dafay génn këram dem njaaloo ba mu neex ko mu ñëw sànni ko jëkkër ji jëkkër ji ne ko yaa ko jur kon moo tax ñu ngay dégg ñaan bëri na doom yoo xam ne yaa ngi leen di ngénte fekk duñu sa doom waaw loolu moom doy na war lool lool lool lool lool lool wax salaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Abdallah ñang daara ji maa ngi lay ziyaare ana soxna si xale yi mbaa daara ji macha allah mbaa tàngoor bi xaw leen laal foofu di sama sama sama sama njëg sama sama wàll nag ci gerte gi ba léegi gisaguma ko mbayum gerte gi ba léegi gisaguma sama wàll ñoo ngi ziar Oustaz Mouhamed di la seedeel ne kontaan nañ bu baax a baax a baax ci kii ñu yóbbanteel muy jàngal téere mi saw saalik tey wax dëgg yàlla tey moo waral coow li yëpp moo waral indi waxtaan bi eh, xam-xam bi génn yëpp tey wax dëgg yàlla parce que indi nañu xam bu leer nañ indi benn ijtihaad boo xam ne gars yi dañoo jàppoon ne ci ay téere la ko jëlee waaye mun tay mu ñëw dellu si waat leeral kenn ne ijtihaadu boppam la bi maanaam sadd zarin ala bi nga xam ne imam malik nga xam ne yow ca ngay istidlaalo te nga jàngal ko ko wax dëgg yàlla ci la def ijtihaad bu baax a baax a baax a baax a baax macha allah ba tax na tey borom xam-xam yëpp génn nañ ñoom tamit di indi ay leeral ci julle gi demee noonu ba it ñu tey oustaz Souleymane Badiane suñu sëriñ ñu ñëpp ñëw macha allah kon nag loolu moom yow lañ koy sante yow mi nga xam ne yaa ko tëralal téere boobu jàngal ko ko ba mu mokk nga jël gur bu tol ni jox ko ko jël dars bu tol ne lu mu ñuy jàngal lu tol ni ci julli ak yu demee noonu sharia jox ko ko jox ko ko confiance nag mu jàkkaar ak borom xam-xam yi xale moom bu loxom setee rek mu mën a jàkkaarloog ay mag moo tax it alhamdulilah rabil alamin tey moom kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax a baax nga santal ñu ko gërëmal ñu ko bu baax a baax a baax wallaahi jërëjëf jërëjëf oustaz Abdoulahi jërëjëf ñun waaleykum salaam wa rahmatullah suñu rawaxaan yow it de lii nga wax fii wax dëgg ñu ci mën a ànd ak yow moom mukk sax sëriñ bi li mu wax dafa dafa doon lu rëy rëy loolu mënta nekk mukk saddu sariya maanaam saddu sariya bokkul ak andi sa atte bopp ku def nangam bàkkaar bi nangami njaalo ak ak yaayam loolu sëñ bi bu bu ci maslaa sax am na yoo xamante ni jarul sax nga ciy maslaa. salaamaaleykum wa rahmatulah wala salaamaaleykum Oustaz Modou Kama yow mi xam nga sama laaj damaa xamul ba xam da nga déglu sama ojo ba li ma doon wax Oustaz Papal ci suba si ak Oustaz Modou Gadiaga man loolu mooy sama problème. charia dafa ñëw bu dee parlementaire bu ñu ko dégloo charia dafa ñëw direct rek ne ko kon xale bi dañ la ko jox par force parce que yaay même boo bañee yow yaay baayam parce que al waladu lil firash waaye bu fekkente ne man li ma xamoon wala li ma daan dégg te man ba Badiane ñëw leeral ma ko mooy wa yasbutu nasabu bi iqraari abdi walaw kadabathu l umm loolu moom loolu moom wax dëgg yàlla euh, bu bu baay ji saxalee rek day day day day dëgëral bu fekkee ne baay ji nag saxara saxalul loolu kon nag li aan dafay am bi maanaam dañuy dañuy dañuy rëbboo juruma ko maa ko jur après ñu seet ku nekk jaar seet fi nga jëm loolu moom wax dëgg yàlla man loolu laa jàppoon léegi nag Oustaz Souleymane Badiane ñëw dafa am beneen sew sew bu tuuti bu fa nekk sew sew boobu nag moom ma jaaxaloon tànk ci suba si ma ko doon laaj Oustaz Pape Fall moom fekk mu xaw a jàpp moo ko Oustaz rek bu fekkee ne sériant dafa ñëwee ne ko yaa jur kon laa laaju ko moom affaire am Oustaz Souleymane Badiane nag bu ñu comprendre dafa mel ne sériant dafa ne man du ma ci jël mesure maa ngi déglu waajur maa ngi déglu waajur wi mu ñëw wax ne ah bu fekkente ne man de bëgg naa man maa jur xale sariya da ko koy jox par te képp ku koy revendiquer euh, atti sariya day daanu sa kaw bu fekkee ne ne waa ji d'accordul nag ñu doon leen rëbbuwante waaw man daal euh, sew sew boobu nag comprendre nga kon man li may laaj xëy na man damaa raté audio yi kon maa ngi topp xool ba xam leeral ngeen ko insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Alxaaji Malick Mbaye Bolle maa ngi lay ziara waaw maa ngi door a noppi ci déglu sa audio bi macha allah euh, iskal bi nga jeq it bu am solo mat a jeqi mat a leeral la buñ jàngee yaxu xadis bi Usmaan ibn Affaan radiyallaahu anhu indil nañ ko benn jigéen indil nañ ko benn jigéen yoo xam ne dafa am borom kër jur doom ci diirub juróom benn weer mu joxe ndigal nañ ko raj mu ak li ci topp Sayyidna Ali ibn Abi Talib radiyallaahu anhu ne raj mu waru ko ngir ñaari aay yooyu comme ni ngeen ko xamee euh, waaye fii iskaal bi benn mooy soxna si leeruluñ ndax mas naa jaar cib sëy ba ñu fase ko wala boroom këram génn àdduna wala mi ngi door a dugg ci néegub sëy utiye bi mira indi nañ benn jigéen rek jigéen ji jan la kon bu ñu xamee ne charia buy jaldu ku mësta sëy lay jaldu waaye ki masa sëy moom da koy raj mu dañuy jàpp ne kii dafa masa sëy moo tax ñu jox ko àtte boobu wala Seydina yu may corrigé dana corrigé waale loolu kon du yem ci corrigé juróom benn weer waaye dana ci boole ne ko kii sax day waruñ koo euh, raj mu jaldoo ko war kon dañuy jàpp ne soxna si euh, mat naa sëy ndax baatu imraa dong lañ indi jamtalu na kuy door a dugg ci néegu sëy la jamtalu it ne ku mas a sëy la loolu benn la euh, rajmu gi it kadalika jigéen ji bu saxee na njaalu na ba yeeyoon a gëtt nit fekk mi ngi toll diggante kenn du ko rajmu dañ koy bàyyi mu am doom bu amee doom it kenn du ko rajmu dañ ko war a bàyyi mu nàmpal ba feral ba doomam dëgër waaw kay waaye moom it kadalika dañuy jàpp euh, jamtalu na jamtalu na jam moom fii moom jur na xad wala dat doom ji moom jur na ba noppi waaye ndax ndax xew-xew bi daa xew ca saasa ñu indil ko soxna si ñu indil ko Seydina Ousmane mu war koo àtte wala dañoo xaar ba la ñu war a xaar yëpp jeex nga xam ne feral na bu yàgg wala mën naa am sax doom ja ba mu juddoo euh, ëndaaliwul bakkan wala ba mu juddoo la faatu ak lu ci ne rek daal lu jamtalu la waaw moo tax lii euh, yeneen xadis wala topp xissa bi ba xam tafaasile ci at yëpp moo koy mën a leeral waaye yaxu xadis rek moom jamtalu na yooyu yëpp jamtalu na yooyu noonu yëpp te bu waa iskaal bi day dañ jamtalu na soxna si mas naa say njëkk lii jamtalu yit na ne doom ji xam ne moom la jur ba waral ñu war koo raj mu mën naa am doom joom juddoo faatu na mën naa am bu yàgg la ko juróon doom ja fer na ba àtte daal war naa mën a taxaw ci kanam léegi waaw te li waral loolu gën a jamtal nag mooy jubbanti Seydina Ali waaw bu fekkoon ne moom bi mu ñëwee dafa jubbanti waale yooyu yëpp dañoo xam ne kon eh, ay njuumte yu bari moo doon daje waaye sagam benn bi la jubbanti bàyyi yee ca des rek kon dañuy jàpp ne yee ca des yëpp dañoo jaar fu ñu war a jaar moo tax jubbanti wu ko. asalaamaaleykum waaw Cheikh Mafari maa ngi lay nuyu di la ziara macha allah jërëjëf ci nasu yi nga dugal. waaw kay xam nga bu fekkee doom sosu na cib sëy boroom kër gi mën a dàq doom jooja sharia nangul ko ne du sa doom te du jar li'aan euh, comme ni feeñee ci njëlbeenu taxi bi mooy tuxiilul aadatu an yakuna waladan shar'iyya aada moo jombal ci aada jomb na jomb na mu nekk doomi yoon tayib yooyu ay misaal yu bari la yenn yi ñëw na ci téere bi waaye nañu bàyyi xel jamono yi am na jamono joo xam ne nangam lu jomb la woon tey nag alhamdulilah jamono soppeeku na ba doonatul lu jomb maa ngi koy wax ci benn audio léegi ay jamono bu dee waajaa nga réew nangam soo am saa ngi réew nangam sëy bi bañ ko faseeg ren euh, léegi at la wala ñaari at wala ñett aada mooy jombal seenu daje ñoom ñaar waaye loolu dafa xaw a wuuteeg suñ jamono tey jii te masala bi liñ ci waxoon bu fekkee soxna si waa ji nee ko juróoma doom bi mu ne ko juróo ko waaw doom jooja dàqu na waaye bu ko soxna si ne yaa ko jur soxna si du du du toog fi mu toog waa toog fa mu toog mu ne ko yaa jur doom ji ba noppi tey mësuñoo gisee ñun ñaar soxna si kay buy woot na maa jur doom ji moom dem na ca waaja wala waaja dem na ca moom wala daje lañ barab sàngam ñoom ñaar loola loola loola lay woote waaw léegi nag subxa googu bu amee faw li aan rek moo koy mën a lijjanti li aan rek moo koy mën a jël ndax bu fekkee li adamu boi luy xew mooy soxna si dañ ko war a xaddu xaddu zina te fek subha yi nga xaddu dañ ko war a jañ ni ñu ko yonent sallallahu alayhi wasallam digle woon macha allah ñu ngi lay ziar lu bëree bëri masala mi nii la ko borom xalil jàngalee naka noonu yeneen téere fiq boo xoolee saraw asalul masalik waaye eh, jamono jamono daal moo mat a bàyyi xel muy jamono ji nga xam ne li lu jomb la woon ngir fa la jamono woon ci wàllu naqlu transport bi tey nag jamono indi yeneen jumtukaay ba nekkutul mustahil nekkutul sax loo xam ne lu yéeme la lu jàppandi la lool. waaw oustaz bi maa ngi leen di ziar xam naa yéen a ci waxtaan ñun moom seen sama zaar moom la ñu war a toog déglu rek damaa rate ay audio yu bëri waaye oustaz Mafari yow oustaz Mourid Gadiaga maa ngi leen di gis ak oustaz Souleymane Badiane ak oustaz Malick Mbaye Bolle ak Cheikh Modou Kama ñoom Cheikh Jamil ñoom ñëpp macha allah yéenay fàq yi oustaz Baye Jili Diop oustaz Pape Fall léegi. Euh, dimbal leen ma ci page bi aussi ngeen dimbali ma ci ngeen ñëw ci fa ida kaana al ibnu maalumu nasabi fala yasbiqu istilxaaquhu bi gayri abihi léegi nag xale bi bu fekkee dañ ne xale bi dañoo xam fi mu bokk bi maanaam dañoo xam kii kii baayam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kon du wér ñu aj ko ci ki nga xam ne du baayam bi maanaa xale bi bu fekkee ne dañoo xam ne waa ji sant Siise nekk ci koñ bi moom moo ko jur kon kenn du ko aj ci waajale sant Touré nekk États-Unis nan lañ koy xamee ci test ADN par exemple moo gën a gaaw kon dafa mel ni fii l'islam daf fi nangu test ADN te oustaz Souleymane Badiane mi am na ci ay ay fatwaam yu baree bare dafa ne euh, lépp luy technologie yu demee nii comme yi xew-xew jamono ji l'islam du ko nangu du ko d'accord oustaz Mourid Gadjigui tamit dafa mel ne mos na wax lu demee noonu comme ay caméra de surveillance test ADN ak yooyu demee noonu loolu dimbali leen ñu ci ngeen ñëw ji parce que test ADN boobu test ADN moom bu doon kon lislaam comme bu dee daf ko reconnaître nii kon doomu njaaroo kon day ñëw doon parce que bu dee bu dee doomu njaaloo test ADN mën na ñëw pour xam ba xam hadal ibn maalum nasab wala ba xam mën nañ ko aj ci waaj yi wala dëgg la wala lu dëgg après ngeen ñëwal ma ci bi insha allah asalaamaaleykum a rahmatullah waaw oustaz Pape Fall macha allah maa ngi lay ziara macha allah waaw suñ papal bul génnee liaan si lu tax waa ji kay bu ne soxna si jurul doom ji soxna si nangul ko loolu loolu moom leer ma waaye bu ko soxna si ne ah kay yaa ko jur ah, soxna si loolu da cee da boole di faw day ànd ak di woot ne moog waa ji gisee nañ ci nii wala ci naa waaye euh, soxna si mënta nekk fii senegal soxna si nga waajaa nga Espagne wala ma nga Amérique wala ma nga wala beneen réew soxna si bëgg a gëmloo nit ne moom moo jur doom ji te mësuñoo gisee dara xewul suñu diggante déedéet soxna si loolu day ànd ak moo faw rek booba ma nga ànd ak mi ngi woote ne moo waajee gisee nañ moo xam moom moo dem wala waajee ñëw wala dañoo dajee Mali wala Gambie wallahu alam loolu nag lënt la koo xam ne soxna si kenn du ko jàpp teg daani charia ànd ak muy langamu ci lëntam googu moo tax bu boobaa dara mënu ko lijjanti lu dul liaan faw liaan am bi salaamaaleykum wa rahmatullah sama sëriñ ñoo lay nuyu del siyaar baax macha allah macha allah loolu dafa naa nekk téere yi di bind nañ ko seexu xaw de nee na bu fekkee ndaw saa nga sa penku jëkkër jo nekk sa soow ndaw sa ñu ki rek gis ko biir jóg ñu wax wax mu ni jëkkëram jaa ko jur sama jëkkër ji gis nu fenn fu mu sa gisee mën naa dàq ëmb sa jërul leexaan di am loolu ak mën a mën a nekk macha allah ñoo lay ziyaara baax a baax xanaa gisoo paas yooyu si am ma fari yi nga xam ne mën na see mën na see dàq doom te jëriñu laan. Ah. waaw. salaamaaleykum wa rahmatulah waaw Oustaz Mouride yow laaj bi may laaj Oustaz Souleymane Badiane laa lay delloo. waaw léegi bu fekkente ne matul juróom-benn weer kon sariya ne ko waaw juróo ko bu matul juróom-benn weer kon sariya xam nga du ko laaj. bu matul juróom-benn weer sariya du ko laaj de day ñëw rek day tas ba dafay xam ne kii kat juru man nag Oustaz Mouride lii may wax nag wax dëgg yàlla tegu ma ko ci benn téere damay laaj sama xal sama xalaatu bopp rek laay wax damay laaj damay laaj pour mu gën a leer bu fekkente ne euh, dañoo ñëw sharia ne ko waaw kii de moom juróo ko par exemple bu doon Seydina Ali ibn Abi Talib ma làkkee ñu ne ko matul juróom benn weer ñetti weer rek la wala ñeenti weer sharia kon dafay dafay dafay sérifie ba danaan ko yow mii kat juróo doom ji parce que sharia day xam ne foofu juréel mënu fi am waaw léegi lan moo tax euh, direct bi sharia def foofu lan moo tax sharia mënu def direct kii kat dafa nekk États-Unis jur sharia dafa war a wax direct ne ko eh kooku juru ko jarul sax wax kooku juru ko la moo tax muy léegi muy xaar muy xaar waajale ba xam mu am mu am muy joxe accord am wala déet te aussi bu fekkee dañoo déglu audio parlement boobu sànq ci commencement bi Oustaz Pape Fall moom daf kaa dàq ba pare nee na loolu mu ko dàqee xaw ma ci xalil la ko jëlee xaw ma ci risaala man daal xaw ma affaire daal doy na waar moom. ñii di dàq comme ñoom oustaz Fafane li ñuy dàq ci xadis lañ ko ci ci ci téere lañ ko jëlee yow tamit indi nga wér boo xam ne imaam Malik na ko. waaw Cheikh xam naa ne masala mi dafa mel ni sax yaa ko gën dégg ndax nii nga ko laajee sax day ci gàttal mooy dëgg dëgg dëgg masala mi eh, te la ma doon bëgg a wax ci ginnaaw dafa mel ni dégg nga ko maanaam lislaam dafa am nu muy saxalee doom saxal. gis nga ki ki nga xamante ni soxnaam dafa am doom ci li juróom-benn weer. lu mat ci maanaam ci misaal ci juróomi weer ndax bu ma nee lu matul juróom benn weer da ngay dem ci téere yi ñu génn ci sax juróom benn fan kooku lislaam danaan ko du sa doom waaye moonte mën ngaa dem ci ci jamono bii ñu toll gis koo xamante ni loola dal na ko teewul mu continuer ni kooka doomam la soxna si ni cell mu ni cell waaye lislaam dane ko du sa doom masalan mii tamit noonu la demee ki nga xamante ni mosut a gisee soxnaam benn yoon kooka bu ca doom sosoo te wóor na leen ñoom ñaar ni kenn mosut a wéet ak moroomam lislaam danaan ko du sa doom lu tax mu ne ko du sa doom bu waa nee ko du sama doom lislaam danaan ko wax nga dëgg du jar rëbboo waaye bu nee ko bu fekkee même bu ko soxna si nee sa doom la de rëbboo sax du ko ca fekk moom borom kër gi waaye nag bu fekkoon wéet jot naa am seen diggante ñoom ñaar lislaam danaan ko kii nag sa doom la même bu ko dàqee du ci génnee noonu rëbboo rek mooy tax moo ko ca mën a génne loolu mooy seen différence ñoom ñaar moo tax na ko Cheikh Pape Fall tontoo woon ca bu njëkk ba moo doonoon dëgg dëgg dëgg tontu la li ci def xëy na ay mottali la rek. waaw Cheikh Mouride jërëjëf jërëjëf bu bari yow kay bu may jéggu la <laughs> yow kay yaay sama sëriñ yaay sama ustaas waaw moom damay jàng rek moo tax moom léeg-léeg kuy tëb di wax kuy jàng moom. ndaa moo ko lëgul moo tax bu jéemee tëb di wax wala muy kii rek <laughs> faaw mu juum sa waaw jéggulu bu baax kay xanaa di jéggulu bu baax yow ak Cheikh Souleymane Badiane Cheikh Souleymane eh, leeral yooyu ngeen ci def itam gën moo koo yokku leeral waaw nag euh, muskile bi def na tuuti daal waaye nag euh, terewul moom leerali Cheikh Souleymane Badiane yi euh, bu fekkoon tamit amoon naa lënt cent pour cent daal mën naa ni teggi na quatre pour cent yi kon li ci def bëriwul waaw te li ci des rek mooy ñàkk a ndaw si ba xam amoon na jëkkër enfant ndax boo mutoon jëkkër moom rek moom bii amu ko yoon waaye lu ci mën a xew di bu baax seen kanam hmm, maa ngi jégalu bu baax. Eh, macha allah sama xaddis bi ma indi loolu laa ci jublu yow nag dafa mel ni eh, fa ma fa ma bëgg a waxee moom yow yaa ko dégg lii laa ci jublu eh, lii laa jublu ci <laughs> ci xaddis bi loolu moo tax ma indi ko ñu ngi lay ziar bu baax di la jaajëfal. waaw sama sëriñ maa ngi lay nuyu di la ziar waaw masala mi moom xam naa boroom xam-xam yi fuqaha yi xëy na xam nañ li tax ma andi ko andiwuma ko nag mbooleem bëgg mboolem ko ne ci groupe bi xam li ma ci jublu waaye doonte kenn ni de xam na li ma ci jublu loola dongu laa ci maanaam loolu moo tax ma andi ko gëstu bu xóot la laaj incha allah du ma ne nag amoo ko waaye man li tax ma andi ko xam naa sëñ ma fari moom ku ko ko laaj sëñ Modou Kama ci boppam tax xam na li tax ma andi ko moom la doon bind noonu euh, ndax yàlla dafa bindee am na ñoo xamante ni mënuñoo leeral ci seenum njàngale te man jàpp naa ne man ci laa bokk ñu ngi lay ziar bu baax. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh Malick Mbaye waaw léegi nag man nag man problème bi ma am yow dafa mel ni <laughs> yow man ñu bokk man li li ma jaaxal waaw man dafa mel dafa am li ma jaaxal masala bi daal. damaa xamul ba xam dafa am tawil ci xadis bi wala xadis bi leer na nañ waaye de firaas moom wax dëgg yàlla ah ay ay ay yu wér feng la de waaye xam naa ni moom man moom jaxasoo na sama bopp bi nag boppu taalibe la moo tax ndaxte euh, jamono ji wax dëgg yàlla bu ñu taxawee ne lislaam wax na ne jigéen même bu nekkee ci biir sëyam même bu nekkee ci biir sëyam bu ci amee doom ci biir sëy ba xale boobu kenn du ko ajal kenn ku dul ci ci ci jëkkër ji ah loolu moom wax dëgg yàlla moom moom moom moom ah am na ñoo xam ne ñi sant si ñu sant Touré moom am na si ñoo xam ne moom bu ñu ko déggee moom macha allah dina doy waar lool lool lool lool lool lool dina doy waar lool. wax dëgg yàlla tijji bunte la daal boo xam ne daal macha allah damaa xamul nag imaam Malik mi ngeen doon wax ne moom dafay def stade Zaria lan la wax ci lii waaye daal xam naa daal daal daal doy na waar moom bii moom wax dëgg yàlla moom masala bii moom. masala bi moom doy na waar lool lool lool ak fi réew mi toll nii ñu wax ne jigéen daal bu ko neexee mu njaaloo bu ko neexee mu diguma euh, astafurla bu ko bu ko neexee mu njaaloo sax déedéet waaye bu njaaloo woon tey fi mu toll nii même bu amee doom ci àll ba jëkkër ji fi mu toll nii tey yàlla tere yàlla tere bu doon jëkkër am na feebaru gu yoom tasu ko ndaw si toog ba si yàgg muñu ko te sëy ba tasut ndaw si dem di sëy keneen ba mu neex ko mu ñëw indi euh, mu ñëw indi mu ñëw indi euh, doom Salamine sax wax na ne même bu amoon téeméeri doom ndaw si dem di indi ci doom di teg rek waaye daal day ngénte rek moom waaw bu ko wóoree ni fii moom def ci dara dara dara dara parce que xëy na yoom daf ko dikkal ah loolu dina doy waar. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa majma majalisul ilmi seen mbokk daara mu ñuy wax Mouhamadou Xay Bousso moo leen nuyu di leen ziar di ziar mboolem cheikh yi nekk si biir daara ji di kontaan bu baax si daara ji macha allah yu fi rat am na solo leen si jëriñu bu baax baax. ah sëñ raw xande xanaa da ngaa bëgg sama classe bi gën a comprendre rek waaye moom xam naa ne ñun ñu dugal nii yaa ñu gën a xam li ñuy wax waaye ah, daal xam naa daal masala moom ngay wax bu fekkee dégg naa ni ngay waxee daal boo demee Cheikh Xalil Cheikh Xalil daal si sarxa ba nee na xoola iyaat ku ñu wax iyaat nee na te lahu woowu moom wax jooju sax almasuur mooy li gën a siiw nee na walaa yentafi du dàq mukk alwaladu doom bi xeeri li ayn su te àndut ak benn rëbboo intanazaa ndéem dañoo xëccoo si na si si dàq doon gi ah kii kat moo dog astu la moom ñee na ko yaa ko jur moo nee na ko juruma booba foog ñu rëbboo doom ji ñu bañ ko ñu ñàkkaa yégal si moom mu ne sax wala wata saadaxa donte ñoom ñaar ñëpp dëppoo nañ si doom ji juru doom ji duwul moodu mi moom moo ko jur wala wata saadaxa ala Euh, xablal binaay aw baadahu léegi nag am na benn mbokk moo dégg ci biir mu wax ni moom bu fekkoon wéet nañ man nag wax jooju moom xaw na maa jaaxal lool ndax borom téere bi dafa wax xaw xablal binaay aw baadahu fala budda min liaani zawji faqat li xaqil waladi waaw am na mbokk yaakaar naa siñ murid la de wax na moom bu fekkoon wéet nañ daal duul jar ñu fay nekk di rëbb ak yooyu loolu moom xaw na maa jaaxal lool daal salaamaaleykum wa rahmatulah sama sëriñ ñoo lay sama sëriñ mën nan ngaa tuuti de wax daal boo ko di indi sa daanoogul da lay indi lépp mën nan ngaa continuer ba nga waxee walaw tasadaqa ala nafihi an taatiya bihi li duni sitati ashurin mën na nga ko indi aw huwa sabiyun xiina alxamli mën nga ko indi aw majbubun mën nga ko indi wa daatuhu maxribiyatan alal mashriqi yooyu xam ne yëpp day tegtale ni mën na noo dàq lu sa lihaan du am nga bàyyi ko fa indilee ah yéeme na de salaamaaleykum wa rahmatullah sama sëriñ mi ngi ziar sama sëriñ maa ngi bokk ñu mu ñuy wax de man masala mi xaajiral xaan di wax laay wax bokk ko maag mi mi ngay wax yow waaw mi xaajiral xaan di wax si télé xaw ma rajo ko yaakaar naa ñoom ñaar bokkuñu de seetluwaat ko bu baax asalaamaaleykum wa wa barakaatu mbokki wa qul jaa alxaq wa zahaqa albaatil maa ngi nuyu di ziar ñëpp sëriñ Babacar Diallo maa ngi lay ziar lu bëree bëri waaye di rafetlu taxawaay bi ak yitte ju kawe ji ginnaaw loolu masala mi nag xam naa bala cee mbokk yi ñëw ñu gën a leeral tuuti ndax nii nga ko waxee ci ñaari audio yi wuute na lool ak masala mi na mu tëddee léegi day am masala yu xaw a jege xaw a niroo te seeni àtte sore lool kiñ may soxna ñetti weer ñeenti weer soxna si am doom kooku moom même bu tukkiwul woon moo soxna si ñoo bokk dëkk doom jooju sharia du nangu mukk ne ci sëy bi la juddoo doom jooju kay doom ju sosoon la njëkk ñuy fas sëy bi bu waaju ne maa jur sama doom la it sariya da koy lànkal ne ko déedéet du sa doom waaye bu soxna seeg waa ji d'accord ñoom ñaar ne doom ji ñoo ko jur ci sëy bi du tax sariya nangu kon euh, qaacida bi mooy bépp jigéen bu ñu maye matugul juróom benn weer matul juróom benn weer moo indi doom doom joojo sharia du nangu ne ci sëy bi la bàyyi ko bu bàyyi ji ne moo ko jur sharia ne ko juróo ko bu ne jurut ko it euh, mbir ma gën a leer safaan bi maanaam euh, juróom benn weer mooy mooy aqsaru muddatil haml aywa euh, fa ko borom xam-xam yi jëlee ci alquraanul karim la safaan bi mooy gën gaa sori ci muddatul xamli loolu mooy koo xam ne dañ koo may soxna euh, doonte gisee naag soxna sax jote naag moom waaye gannaaw gi mu dem tukki bàyyi ko fi lu mat juróomi at lu ëpp juróomi at gisewuñ ñoom ñaar soxna si xëy xëy am bu am doom ne doom ji mi ngi bàyyeekoo ca jote gam jotoon na waaja te ba mu gëjee gisee waaja léegi mat na juróomi at doom jooju it sharia du ko nangu même bu waaja wa mooy bàyyi mit sharia ko nangu kon saa bu doom sosoo ci anam goo xam ne wóor na ne bàyyeekowul ci waaj yi doom jooju même bu ko waaja bëggee eh, wax ne moo ko jur sharia du ko nangu loolu ñaari yooyu ma tudd ay misaal la ci waaye misaal la ci ci tuuti ba tolloogul fu mu mën a amee doom ñu may ko soxna bu soxnaam amee doom sharia du ko nangul majbuub koo xam ne dañoo dog sàkkaram amul sàkkara sum séyee kooku it bu amoon soxna bu soxna sa amee doom soxna sa du nangu ne doom ci moom la bàyyi ko même bu waxee ne moo ko jur duñ ko nangul loolu kon yooyu ay mbir la yoo xam ne bokkeewul ak masala mi ñuy wax léegi nag ñu ñëwaat ci beneen audio ci masala mi masala mi mooy benn waay buñ may soxna fa muy dund ak fi soxna si dund bokkuñu ñaari barab la yu sore loolu nag ay xaaj la bu fekkee ñaari barab yi sore nañ ni ko foqaxaw yi daan misaale soxna saan ci mashriq mooy ci fenku jant waaj nekk ca maghrib sowu jant wala safaan bi nga xam ne seenu gisee lu jomb la ci misaal ca jamono yàgg yàggee nga xam ne jumtukaayu avion yeeg yu ni mel xewagul woon nit bu bëggaan a dem day dox ak tànkam rek wala mu war mbaam wala fas gëléem yu mel noonu waaja nekk Amérique soxna si nekk Sénégal ñu fas diggante bi ñu toog fukki weer ak ñaar wala ñaari at wala ñetti at waaja ne soxna si am doom bu boobaa dañuy xam ne ñaar ñii Eh, ñoom jomb na ñuy ñuy jote ndax mënuñoo sax gisee kon doom jooju sariya da koy dàq même bu waa ji waxee ne moo jur doom ji soxna si nekk yaa ko jurit du nangu loolu doom jooju judduwul cib sëy eh, bu fekkee nag sore nañ waaye sore ga teewul ñu mën a gisee du mustaxil ñu gisee comme suñ jamonoy tay jii waajaa nga Amérique soxna saa ngi Sénégal waaye nag benn fan vingt quatre heures wala quarante huit heures wala soixante douze heures mën nañoo gisee ñoom ñaar moo xam soxna see dem wala waajee ñëw wala dañoo dajee ci beneen barab dañoo dajee Mali wala Gambie wala Côte d'Ivoire waaw bu doon ci xaal bi soxna si am na doom doonte waa bañ koo may waajaa nga Amérique moom mi Sénégal waaja ne doom ji juruma ko ndax gisee gu ak moom soxna si nangul ko lool doom jooju wàllu sinaa la comme niñ ko waxee. waaye bu fekkee waa ji daf ne doom ji jur ma ko soxna si ne ko ah yaa ko jur ndax man ak yow daje nañ hôtel nangam wala daje nañ Mali wala réew sàngam wala ñëwoon naa fi nit ñee yëgul wala yow ñëwoon nga fi yoon woo xam ne kenn yëgul man a yaw la woon yu mel noonu bu amee ba tey liaan bu waa dañuy faw ñu dem ci àttekat gëñ seen gëñ mooy tax sharia nangul waa ji ne ko juróo doom ji waaye soxna si kenn du ko teg xaddu zina Euh, kon loolu sew sew la bu ama am solo ci masala mi euh, fuqahaw yi euh, dañuy wax ne bu fekkee soxna si dafa nekk mashriq waa ji nekk maghrib mustahil ñu gisee ñoom ñaar loolu bokkeewul ak suñ jamono ji nga xam ne mën nañoo sore lool waaye xayru mustahil aada jombulut mukk ñoom ñaar ñu gisee ci lu kenn yëgul aywa loolu la kon daal ci gàttal soxna si bu fekkee fasal nañ ko may nañ ko benn waay soxna si indi doom ci anam goo xam ne ñëpp am nañ yaqin euh, jomb na jomb na doom ji jógee ci waaja doom jooju ñoom waxuma la euh, dañuy déglu waaye waaye même bu waaja ne woon ma maajur doom ji charia du ko nangul loolu amma bu dee du lu jomb nag mën naa am doom ji ci waaja la bàyyi ko comme ka nekk bitim réew ñu may ko soxna Euh, soxna si am doom ci diir boo xam ne doom aj na fi mën na war na fee mën a sosu doom jooju lañ wax ne feek waaja taxawul dàq ne doom ci juruma ko yoonu kenn nekkut ci doomama loolu la koy tegtale mooy wax yonent bu dee li may wax nag mooy masla bi imaam Maalik radiyallaahu anhu lii danañ ko jàng ci xalil danañ ko jàng ci yeneen sara euh, téere yu gën a ndawee xalil waaye danañ ko jàng it ci mudawwana waaye danañ ko jëlee ci waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy alwaladu lil firaash firaash mooy néegub sëy jigéen dina ci néegub sëy di sëy bu amee doom daal boroom këram mooy bàyyi doom ji lu dul boroom kër gi dafa dàq ne juróoma doom ji euh, bu boobaa ci la sharia door a dàq doom jooju ca na mu koy dàqee nag maanaam borom kër gi du du ko dàq ci làmmiñ rek mu jeex beneen bi mooy àll al du lil firaash nañ ci génnee doom ju sotu njëkk ñuy fas sëy ba comme sañ Babacar Diallo misaal yooyu nga joxe mooy sëy buñ takk ñetti weer ñeenti weer doom sotu déedéet loolu du al waladu lil firaash waaye doom la joo xam ne moom daa soso woon xablal firaash loolu li muy tekki mooy bi ñuy fas sëy bi booba doom jaa ngi biiru soxna si commencé naa sosu di màgg fas googu moo daganul ndax da nikaaxu mu'tad la wala mustabra benn ci ñaari rek mën a doon te bu mu ci ñaari jigéen bu nekk ci àdda alquran moo tere ko ko takk sëy boobu moo tax dañ ko war a tas bu dee ci mazhab bi sax day bu dee ñoom ñaar jote nañ buñ tasee sëy ba dañuy xaraamante ba faw dootuñu mën a dencante ci gàttal wasalaamaaleykum wa beneen bi Serigne Babacar Diallo muy lu jëm ci xas gi maanaam soxna si ba mu amee doom rek ku taxaw ne doom ji waa ji juru ko ndax nag ma nangam euh, kooku alquran moo santaane nañ ko xaddu xaddu qazf maanaam dañ koy laaj ne ko yow li wax lu ci seede faw mu indi ñeenti seede ni ko yàlla waxee ñeenti seede yu maandu yoo xam dañoo gis soxna si njaaloo bu boobaa de euh, xaddu zina dana dal ci kaw soxna suus xaddu zina nag Euh, bu dee soxna si mësta sëy dañ ko war a jaldu téeméeri yar waaye bu dee ku mas a am borom kër ba joteeg moom wala maratan waaxida dañ ko war a rajmu jam ay doj ba mu dee loolu mooy àtte bi yàlla fii soxna si mooy àtte bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ku njaaloo gannaaw sañow waaw léegi nag xaste yi nga xam ne waaye soxna si am doom rek ku ne am ku ne doom ji doomu njaaloo la wala borom kër gi juru ko nangam nangam kooku daal ñeent seel yu lañ koy laaj bu am ñu caw ko waaye naqamit ne ni ko alquran waxee fa ulaayika indallahi humul kaadibun maanaam yàlla da koy jàppee yàlla da koy def muy ab kaadib loolu nag musiba mu rëy rëy la nit ki bu sàgganee ba doon kaadib fa yàlla lu mën a waxati wala mu defati ko rek wala kaadib la mënatut wax lu dëggu bu ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah sax huwa kaadib ak yeneen melokaan yu jéggi la yu ko alquran melal waaw ndax lan lu waral mooy dafa bokk ci maqaasidu sharia jubluwaayu sharia yi gën a rëy maqaasidu sharia al kubra xifdul ard sharia dafa jóg ngir wattu bakkan yi ngir sàmm diine yi waaye ngir wattu der yi wattu askan yeeg der der doomu aadama daal ñu bañ di yàq dara ci loo xam ne euh, du jaru ko wala amuñ ci ay firnde asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waxul jaar xaq wasaaxal baatil inal baatil kaana zahuuqa seen bokk xaaj Mor Sène mooy nuyoo di siyaar ñu nag jawar ni ki Cheikh ci farlu gi ci yittewoo gi mu yittewoo xam-xam ak euh, masalo yu jaxasoo yi tabaarakallah di nuyu itam al imam Moustapha Diop moom du romb benn benn audio boo xam ne bi Babacar Diallo moo ko dugal moom incha allah du ko romb boobu moom foog mu liir ko tontu ko incha allah al <laughs> Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ziar naka mbokki Côte d'Ivoire maa ñëpp ngi jàmm alhamdulilah Eh, di nuyu nag eh, xaalim bi ma àndaalee eh, numéro am muy Cheikh Souleymane Badiane Cheikh Souleymane Badiane seen masal bi moom xam naa ne dangeen ngeen ci da ngeen gën a leeral pour ñu gën ko dégg parce que fii am naa benn laaj mooy ndaw fi nga xam ne si fuqahaa yi dañoo wax ne moom jëkkër jaa nga masrix moom ma nga maxrib ñu ne kon diggante boobu moom xëy na jom jomb na ñëw fi te ko wala ñu ànd jàng nangam léegi ndaw soosu moom uh, ëmb boobu mu ëmb moom li ñu koy tuddee njaaroo lañ koy wax wala luñ ko nan lay tudd moom bu ëmb boobu comme foxaa yi d'accord na lu moom uh, bu boobaa moom uh, ndaw si bu ne jëkkër ji bu ne maa ko jur itam du nangu léegi nag bu boobaa nuñ koy tuddee kon incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi lay nuyu di la ziar allah. nga mayoo ma wax suñ Babacar Diallo audio bi ci kaw ne ko waaw raj mu dee ak saxam ci lislaam moom muttafaqun alayhi la euh, daanaka bëgg ko weddi moo toog ne jant bi amul wala asamaan amul wala suuf amul daanaka benn lañ ndax loolu muttafaqun alayhi la la koy tegtale it mooy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ak jëfam atte ay nit raj leen euh, miraaran ginnaawam ay saxaabaam wéyal loolu jullit ñi àttewoo lislaam it wéyal loolu waaw léegi nag doonte am na ci alquran maanaam loolu mooy tegtalu rajmu doonte am na ci alquran aaya bu yàlla wàcce woon mu wax rajmu gannaaw gi mu nasku ko tilaawatan bokkutul ci alquranu karim loolu du benn aaya boobu waaye ay aaya yu bare bare bare bare bëri la euh, bi ko yàlla naskoo te aaya boobu lam doon tegtal nag lu ñuy jëfee waaye du tekki ne maanaam bu kenn yaakaar ne aaya boo xam ne moom lañ nasxu jàngatuñ ko moom la ñuy jëli naan mooy dalil ci masala sàngam déedéet masala mi lii dalil bi mooy sunna aaya yooyu borom xam-xam yi bi ñu jàngale usul dañ koy indi ngir lan joxe ay misaal joxe ay misaal loo xam ne dañ ko nasxu tilaawatan la xukma atte bi moom mi ngi fi ba léegi atte bi nag ci atteb sharia kenn du ko jëlee ji ci loo xam ne dañ koo nasxu tilaawatan waaye ñu ngi ko jëlee atte bi ñu ngi ko jëlee ci sunna s yonent bi lu sax aywa gannaaw loolu sëñ Baye Mor Sène euh, soxna soos nga xam ne ëmb na doonte mi ngi ci buumug sëy ci anam goo xam ne jomb na ëmb ba bàyyi ko ëmb boobu doomu njaalo la waaw loolu nag bu amoon bu amoon li xam nga maanaam kenn sañu la taxaw njaalo moom kenn sañu koo tuumal kenn alxuraan da koo tere te taral ci lool euh, yonent bi sallallahu alayhi boole ko ci maanaam tuumaale boole ko ci alkabaayir asabul mubiqaat juróom-ñaari bàkkaar yi xalak doomu aadama moo tax lu mel noonu bu amee xam nga luy xew mooy soxna si mooy am ragal yàlla ak boppam la xewoon ci jamono yim salim dem ci dem ca àttekat ne ko ah man de damaa wàcc yoon lii daal ma nañ ma teg daanu sharia waaw kay wala xaadi àttekat bi moom yëg na loolu sañ naa woo soxna si enquête ko bu fekkee nangu na ne moom dafa dafa zina ñu teg ko àtteem yoon wala ay kilifaam way juram wala nangamam dem ci àttekat ne man sama doom kat dama ko may boroom kër boroom kër gi nekk fi waaye ëmb na waaw moom tuumaale wu dara de dafa wax le xew rek àttekat bi boobaa sañ na ko àtte ni ko sharia diglee waaye am sharia mayiwul kay mooy xëy xëy di wax ne comme ni mu xewee jamono rek diw sàngam njaaloo diw sàngam am na doomi njaaloo nangam nangam yooyu dafa am yoo xam ne même boo ko gisoon teg ci sa ñaari bët njaaloo gis nga njaaloo boo fekkoon ñaar ñuy njaaloo ak sa ñaari bët yi nga am yaqin ni la sa rëdd baaram yi wóoloo ne ñii dañuy njaaloo boo génnee wax ko sharia coow la <laughs> nii la ko lii lii mooy àtte bi yàlla lii mooy àtte bi yàlla soo soxada la ci seede muy nasu alxuraan yu leer nañ macha allah kon daal sëriñ Baye Mor Sène ci gàttal lu mel noonu bu xewee jigéen ëmb ci anam goo xam ne ëmb ba jógewul ci sëy benn moom mën naa dem ca àttekat ba déclaré boppam mooy tax yàlla jéggal ko maanaam ki nga xam ne def na lu ko sharia wala atte mu dem ca kanam attekat ba xam le ne def naa nangam nañ ma atte sharia gërëm atte bi yàlla wallahi loolu moo koy laabal moo koy setal ci bakkar ba waaye bu ko neexoon ni toog jàpp boppam de tuub jéggalu yàlla boroomam te loolu sax mel na ne mooy mbir mi yonent bi sa alayhi wasallam loolu la joxoñ ci loolu la soññee ku def lu bon bu la yàlla suturaalee suturaalal sa bopp bul gàcceel sa bopp aywa wala wala soxna si ay mbokkam ay ñam méngoo mbiram ay kilifaam dem ci àttekat xam ne suñu njaboot kat nangam ji xaw na ci moom àttekat ñoom ñoom nag waa dañuy wax li xaw rek ëmbu waaye sañuñ ko sax tuumaal ne dafa njaaloo soxna si nag bu ko àttekat wooyee ngir àttekat yëg na ne ëmb na te amul borom kër wala borom këram jomb na ëmb bi bàyyi ko ci borom këram wala ay mbokkam wax nañu àttekat loolu àttekat da koy woo laaj ko mën naa force daa am ku ko force tëddee ko man naa am dañ koo dorogee dañ koo soppi am xelam yooyu yëpp rek bu ko bu ko bu ko saxalee loolu da koy teggil ak gëtën ñu bay ko yàlla boroomam waaw kay barakallahu fiina wa fikum moo tax niñ koy waxee rek njaalo moom daanaka ku ci sharia gëtën day fekk na yow la neex rek ndax da ngay ixtiraaf walla ñeent seede yu maandu te ñeent seede yooyu moom wax dëgg yàlla mel na ni taxul mu yomb bu fekkoon ne moom rek rek kay tax ñu ate nit ci njaaloo mën naa am euh, ba lislaam di lislaam ba léegi ñi ñuy àtte ci njaaloo danañ néew trop trop trop trop trop ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu xul jaal xaq ñu ngi di nuyu bu baax di leen jaajëfal sëriñ Souleymane Badiane ñu ngi lay nuyu bu baax di la ndokke di la ñaanal jàmm di rafetlu bu baax a baax a baax tontu yi nga xam ne indi nga ko ci laajo sëriñ Babacar Diallo yi macha allah am na solo lool te rafet na lool macha allah macha allah waa li nga ci wax rek maadaama daal borom kër gi moom mooy borom tool bi ixraar na ni njiw mii de sama sama gàncaxa yoonu kenn nekku ci ok kon nañu ci def te seeni làmmiñ ci deru góor yi mhm. waaye bu ne woon nii nii lii moom ma ko ñu ne ko waatal mu jaral ko waat li di dugg day delluwaat ci aslu bi nga xam ni moom la usuli yu ne di wax naan kullu ma buniya ala batilin hudim waaw lu ñu tabax ci neen des koy rek anam ku fekk toolub jàmbur nga jëmbat fa sa gàncax mu la ko borom tool bi mayul ñàkk nga sa gàncax jaan kullu ma baat ma buniya ala batilin lépp lu ñu tabax ci caaxaan rek loolu màbbees na ko xaayida boobu daal moom mooy wéy yi al waladu lil firaash wa yuaahidu lal bi daal moom boroom lal bi ki moom soxna si képp ku ñëw jaaree gannaaw jaaree feneen ba def ca soxna sa lu lay may doom doom ja moom moo ko bu borom kër ga ne sama dooma doomam muñ nga nag moom naa dul xam nag ban góor a koy tolore loolu day dana ma jaaxal lool nag waaw waaye daal ñeneen ñi ci touche bi moom seen yoon nekku ci waruñu cee àtte loolu daa nekk boroom xam-xam yi liñ ci wute bëriwul liñ ci wute daal bëriwul ok ki njaaloog ndaw si bu ñëwee iddia daal ni doom ji sama dooma <coughs> amul dara tus <coughs> kenn du ko ilxaq ci moom ñu ngi koy ilxaq ci borom lal bi nga xam ni moom nangu na ni doomam ok la wa rahmatulah waa waaleykum salaam wa rahmatullah waaw Cheikh Sëriñ Turaqa maa ngi lay nuyu di la ziyaara lu bëree bëri wallahi ndeysaan noonu nga waxee ko rek moom daal kuy jëmbat sa gàncax ci toolu jàmbur yow bëggoo gàncax fekk borom tool bu ñàkk ab toolam wala mu miiri ko ba def benn buntam di tëjee ka tijji nga ñëw di fa ji sa gerte wala ngay jëmbat say garab yow bëggoo gàncax eh, yaa ngi tooñ sa bopp rek waaye doo fa jëlee dara yonent bi sallallahu alayhi ci anam gu niroog googu la wax ne ku gëm yàlla gëm bés penc daal bu mu di roose njëmbatum jàmbur moo tax masala yu am solo la te xaw a duggante kii nga jeexale mooy kii ñëw fekk jigéen ju ne ci bu mu di sëy am doom mu ne maa jur doom ji kooku moom bu sharia doon ate te loolu dafa mel ni mi ngi am léeg-léeg nit ñi def ko euh, la koy njëkk gaar mooy yuqadul mukallafu bi iqraar yi moom iqraar na saxalal na bopp ne dafa njaaloo nangu na ne moom dafa njaaloo kon dañ koy teg daan yi sharia di daan ku njaaloo donte yenn fuqahaa yi wax ne ne buñ demee ba war koo gëtan mu mu weddi bopp ne dama doon wax rek la ma waxoon dëgg dañ koy bàyyi bu bàyyi ko yàlla buñ ko jàppee loolu mu saxalal boppam war koo teg daan lu tax mu am fa doom amul fa dara ndax moom xaaxir la rek yoonu saa jam waxtu leer naan nañ walil xaaxir al xajr salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Souleymane Badiane barakallahu fi ko jërëjëf leer na waaw kay fii amaan naa fi ñaari laaj nag benn laaj bi mooy eh, ndax eh, atte bii dañ ko attee noonu ci ndaw susu nga xam ne gisante wut ak jëkkër mu am doom ñëw jëkkër ji léegi sañ te bañ eh, maanaam jëkkër ji mën nañoo yéegal doom ci jëkkër ji daal sare da ko yéegal ci jëkkër ji kooku ndax li ngeen di woyo ay ngir muy ñeent ngir yëpp wala juróomi ngir sax ñoom ñëpp ñoo ci d'accord wala am nañ ci ay wuute loolu dem soxla nañ ci leeral parce que dafa masala bi dafa rëy ci niñ ko dégg rëy goo xam ne gii su fekkee ñëpp dañ cee d'accord rek wax di am dina indi xamoon ni ñu koy mën a waxee daal bu fekkee ñëpp d'accord ci ñu xam benn bi dégg naa nga tudd si xaw ma defe naa naafis ak mansuux su ma juumul kooku moom xaw ma benn affaire la parce que euh, oustaz euh, Pape Pape jaw Pape la defe naa bu ma juumul am na fi benn suur moo euh, góor gi Ndiaye Cheikh Abib Ndiaye fanaan nañ fi ñaari fan xaw ma ñetti fan te ba léegi affaire bu leerut xam naa affaire boobu moom daanaka moom fi mu ne nii pour dugal dëkk ju bopp nit ñi dana jafe parce que euh, oustaz ba Baba Diaw borom xam-xam la te itam euh, wax dëgg yàlla man eh, coow na fi keroog coow fi ba coow ba jóge fi daal dégguma fi kenn daanaka daal kenn kenn kenn mun fee dindi lu lu lu lim fi jël lim fi wax. Euh, xam naa kooku moom jar dañuy masala mi daal moo ëpp moo ëpp solo ñu xool bu fekkee ne ngir yëpp ñoo ci d'accord. ñu xam bu fekkee dafa am ñu ci d'accord ak ñu ci d'accord ñu xam ñu ci d'accord itam lu tax d'accord ci xëy na sanga du temps bi xëy na du ko maye waaye lu ñu ci mën a leer dañu leer ko incha allah bu ko defee bopp ni ñu gën a oyof tuuti incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah waaw sëriñ Baye Mor maa ngi lay nuyu di la ziara seen euh, ban nag fii ma toll nii ay téere jegewut ma ba ma mën a dellu ci yeneen mazahib yi xam ndax dëppoo nañ ci masala mi wala déet li may wax yëpp maa ngi koy yemale ci mazhab imam malik radiallahu anhu waaye ñu gën a taxdid mawqiul masala mi maa ngi koy wax ca njëlbeen saa boo xamee ne jomb na ñaar ñi gisee loolu mënta nekk waaw bu boobaa doom ji sharia du ko nangu même bu ñu waxee ne ñoo ko juri sharia du ko nangu rawat na buñ ko waxul waaw loolu nag euh, ay jamono ku nekkoon Amérique ñu may ko soxna fii senegal ren ba déwén wala ñaaraat wala ñett soxna si am doom boobaa loolu mooy àtte bi ndax jomb na aada mayewul ñu gisee ñoom ñaar loolu bokkul ak suñu jamono tey jii nga xam ne jamono ji ne man ngaa ñëw jamono ju ne mën ngaa dem nit mën naa nekk Amérique tey masalan ñu may ko soxna su dëkk ndar soxna saa nga ndar di dund ak waa këram waa ji ñëw dakaar woo ko dajeeg moom barab sàngam wala soxna si jugee bi dem génne wala Mali wala Gambie daje fa moom lu ne daal man naa am moo tax fii yaqin ci ne ñoom ñaari ñaar mosuñoo gisee moo mënta am rawat na nag bu waa ji waxee ne moo jur moo jur moom doom ji doom la bu waa ne doom ji sama doom la te soxna si soxnaam la da bu ko wax dañuy dañuy xalaat ne ah waa ji xanaa kon daa mas a joxante moom rendez-vous barab sàngam fu gisee moom foo xam ne ñun yëguñ ci dara yëguñ ne ñëw na ndax loolu yëpp wax dëgg yàlla du lu ci aada jamono folli na jomb googa bu doon ay jamono yoo xam ne dem ak dikk yi jàppandiwutoon nii nga xam ne pour ñu gisee ñoom ñaar mustaxil la waaw loola moo doon àtte bi waaye nañ bàyyi xel jamono ji euh, beneen bi mooy naati xam man suux sëriñ bàyyi moor waaw xiwaar yooyu yëpp man fii la ma fekk macha allah waaye gis nga masala moomu boroom xam-xami lislaam yi buñ doon junni la danga naan euh, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf yi juróom-ñeent fukk ak juróom juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi dañoo saxal ne naasix ak mansuux lu sax la ci alquranul karim benn ba wala sax lu matul benn ba ñoo wax ne amul te ñi wax ne amul buñ leen xoolee xool ña wax ne am na dañuy fekk ne naasix ak mansuux ñi koy dàq du ñàkk ñu jàngale ne am ci xam-xam waaye seen xam-xam màccul ci ba buntu boobu loola du seen fànna ñii jàng fànn bi ba naan ko moo xam usul la wala ulumul quran dañuy saxal naasix ak mansuux ña cay wax di ko weddi yëpp loola du seen domaine dañoo dugg ci loo xam ne du seen waar te seen xam-xam it wax dëgg yàlla ku leen xool xool ñi ko saxal tàmbalee ca saxaaba ya baatu naasix ak mansuux dañ koy fekk ci waxi saxaaba yi ci waxi Ali ibn Abi Talib taabiin ya taabii taabiin ba jantub tey boroom xam-xam yi lislaam yi bu doon junne la neuf cent quatre-vingt-dix-neuf yi nee nañ lu sax la ci alquranul léegi nag gëm moom beneen affaire la kum neex nga gëm ne loolu am na ci alxuraan kum neex nga gëm ne amul waaye daal na leer ne moom moom wuute bu tax ñu naan wuute amu ci benn benn yi ci wax ak néew daanaka ñoom ñëpp dañoo dugg ci lu dul seen domaine wax ci xam-xam boo xam ne euh, du seen taqasus daal macha allah.